barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. demee ci téere tawraate bu Muusa wala zabuur bu Daawud wala injil bu Isa wala suufi Ibrahim. inna haza la fi suufi al-ula kon lii ñëw nii ci ñun fii inna haza naka lii di saar yi nga xam ne dafa dagg-dagg naka noon lafi fi suufil téere yi jëkkoon wàccoon na ca téere yonte yàlla muusa yi wàccoon na ca ñoom it dana leen doon jaaxal waaye ndek ay junju yàlla la woon ay liaaru yàlla la woon ñoom seen jamono tollu ñoon fu ñu ko xamee am na ci téere yonte yàlla muusa ak ay bërëb yoo xam ne ci téere yonent yàlla euh, Muusa la ñu ngi ci wàccee am la xalamahudu am la xalamahudu ndeke am la xalamahudu moo doon allahu muhammadu ah waaye ni ko yàlla roofalante xeli doomi aadama kese du ko mën a jëli am la xalamahudu allahu benn alif la ak ñaari laam ak benn xasaqiir muhammad benn miim la ak benn aadem dellu ak beneen miim ak daal boo seetee am laxala mahudu mi ngi doon allahu muhammadu mi ngi doon téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett waaye boo seetee muhammadu juróom-ñeent fukk la ak ñaar allahu juróom-benn fukk la ak juróom-benn juróom-benn fukk ak juróom-benn nag boo ko booleek juróom-ñeent fukk ak ñaar mu jox la téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett mu doon allahu muhammadu boo demee ci iyaaka naabudu iyaaka naabudu téeméer la ak juróom fukk ak juróom ñett iyaaka uluhiya la naabudu ubudiya la kon allahu mooy uluhiya ba muhammadu mooy mooy ubudiya ba kon saar bi tamit dafa tàmbalee lu mel noonu la moo tax ñu ne bismillah rahmaani taaha am na ñu na ñu ne taaha maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi yàlla rek mooy yàlla ku dul yàlla du yàlla bismillah yàlla bu sampee kenn du sempi waaye yàlla bu sempee kenn du sampati bismillah yàlla mooy njëlbeen bu amul tàmbali ca cay yàlla mooy aji mujjug boo xam ne amul jeextal bi dappet rahmaani yàlla mooy dooley biti rahim yàlla mooy dooley biir rahmaani yàlla mooy baa mooy zahir rahim yàlla mooy baatin rahmaani yàlla mooy sharia rahim yàlla mooy haqiqa Hmm? rahmaani teraanga àddina ku ko am ak ku la ko jox ak nu ngeen ko joxante ak fu ngeen ko jëlee ki ko moom yàlla la rahim teraanga yowmal qiyaamati ki ko yor te koy jemp-jempal kenn rek la mooy yàlla yàlla nañ ci yàlla jemp-jempal kon am na ñu jàng taaha bu fekkee dañu ne taaha dafay doon tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ey yow yonent bi ndax bokk na ci ay turam Muhammad Bashir Muhammad Nazir Muhammad Mustafa murtada mujtaba muntaqa haadi muxtaar mahdi lii lépp ay turam la sallallahu alayhi wa sallam nee nañ taaha tamit ci turam la bokk comme boo ko xaccee boo ne taaha mooy eey yow yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne dañu ne tax tax nag quraanan arabiyan arab yi dañoo bëri te arab yi ni ñu bëree yëpp ay bani xasr ay bani tay himyar mayin Ah, saba ñi ñëpp ay arab lañu arab bu nekk la mu doon wax alquran dafa ànd alquran bàyyil benn làkk ci biir làkk yaaram yi comme boo ne tax mooy tegal sa tànk bi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa doon julli di julli di julli di def ay naafila ba tànkam yi di néewi tànk yi dana néewi mu daal di coosal bi néewi daal di teg bi nga xam ne oyof na bu bii demee benn noppalu mu yëkkati bi nga xam ne moo nekkoon ci suuf teg bi noppalu xam nga li metti na woon soxna Aïcha daan na ko ey yow sang bi ndax du yow la yàlla wàcceel aaya boobale inna fatahna laka fatal mubinan yàlla nee na ubbil na la bunt yi dootul tëjeeti mukk yow daa dof li bon yàlla jéggal na la sa zahir jéggal na la sa baatin yàlla du la topp ci dara waa xanaa munoo wàññi coono ngi ngay dab ci jaamu yàlla mu ne ko afala akunu abdan shakuran ndax man duma nekk jaam buy sant boromam yàlla defal na ma teraanga rek ma topp bànneex boobu la di nelaw rek di xandoor di nandi mandi ah di lekk di regg rek déedéet foog ma sant yàlla yàlla na Muhammad sa tànk bi cu teg ko kon ci suuf moo tax am na ñu jàngee tax tax joggil taxa ay eh, yow yonante bi yow yonante bi de alquraanam dikk gi mu dikk dikkul ngir fitna la waaye dafa dikk ngir nga mën a nga ngir nga mën a waaw liggéey liggéeyal yàlla liggéey goo xam ne dafay dëpp sa yaram bi ta jogil ta e yow taaha e yoonante bi boo bindee tax fukk la ak ñeent taa bi juróom-ñeent la xaa bi juróom la juróom-ñeent juróom boo ko boolee mooy fukk ak ñeent mooy tolloog waxaabu waxaabu yàlla mooy mayaakoon may ji mu may yoonante bi musu ko may kenn te dootu ko may keneen ah, waaye boo ko bindee it taaha taax bete mooy doon jawaadu yàlla mooy tabe ki am bay joxe ki ko jox mooy yàlla kon tabe gi yàlla gi yëpp muhammad sallallahu alayhi la ko jox ku ko am ci muhammad nga ko jëlee kon taaha yow ku yàlla may ki ah, boo ko yéegale ci wahaabu waaye taaha yow ku tabe ki boo ko yéegale ci jawaadu kon taaha kon tax yow ki yàlla may mayam yu màgg yi wala tax yow ki yàlla may tabeem yu màgg yi taaha eyow muhammad maa anzal naa wàcce wuñu aleyka fas ca kaw wàccewuñu alxuraan ngi li tashqaali ngir nga jaar ci texe di wala nga sonn bedootoo talate ak nite déedéet al diina li mu bëgg mooy nanga nga liggéeyal àddina liggéeyal àllaaxira bul jàng ndeyjoor rek bul jàng càmmoñ dong imal li duniyaaka kaanaka wa amal li axirata kaanaka ta mutu xadaa na àddina ba mu mel ni dangay ngay des bi be faw waaye na nga liggéeyal àllaaxira ba mu mel ni boo paree da dee moo tax alquran dikul, dikkul ngi andil Ma ay coono maa anzalna wàccewuñu aleyka fas eh, fas nyel, eh, la eh, wàccewuñu alquran bi sa kaw li tashqa ngir nga jaar ci texe de déedéet illaa ndara taskiratan muy fàttale ko waaye alquran dafa dikk doon soññ waaye dafa dikk doon jàjj waaye li ma ñeel jëmm joo yaxsha dana mu ragal yàlla yàlla ci yàlla boole ñuy ragal yàlla alquran gi tanzilan lu ñu la ci ba nga xalaqa mooy ki bind al arda susi wa samawaatil ula yalla nag dafa bokkoon ci aadam buy wax asamaan lay jiital soog a teg suuf waaye fii nag mu jiital suuf wax la tasqa ula istawa sara ah naka wadduha walili saa saja maa waddaaka rabuka maa wala alaaxiratu xayrun laka min al uulaa wa maa xalaaka yàlla dagg kaaba ngir alquran mën a doon misaal waaye waxul wa maa xalaaka wa maa xalaa rek la wa yàlla wax lii ay baatin la ci waxinu yàlla tanzilan muy lu ñu wàcce ak wàcce mi man bawoo ci buur ba nga xam ne xalaqa moo bind asamawaat al arda suuf si wal samawaat ak asamaani al ula bu njëkk bi bu ñaareel ba ci juróom-ñaareel bi gën a kawe arrahman yàlla de istawa jéng na nguuram alal arsh ci kaw arash istawa bi ah dawul na yàlla dafa toog ci kaw arash de yàlla ëpp na arash déedéet yàlla ëpp na arash bi mooy yàlla jéng na ay ndigalam na ay teram ci arash nguur gu nekk dafay am dalil yàlla ci nguuram mooy arash zil arshil majid faalun lima hmm? bi dafa mel ni istawla comme nga ne kilifa réew mi toog na ci kaw réew mi doowul ne dinañoo sëggal suñuy baat mu toog suñu kaw waaye ay ndigalam moo jaar suñu kaw qad istawa bisru alal iraq min xayri sayfin wa damin mihraq kon mi ngi noonu le arrahman yàlla day istawa jéng na doole nguuram alal arsh ci kaw arsh lahu aji nekk la ñeel yàlla maa fi samawaati li ci asamaan yi juróom-ñaar waaye wa maa fil ardi ak li ci suuf si wa maa bayna ma ak li ci seen diggante jant weer yi biddiw yi ngelaw yi niir yi wa maa taxta saraa ak la nekk ca ron bàq ba fa nga xam ne suuf gënu ko suufe ba fu kaw gënu ta kawe lépp moomeelu borom bi la subhaanahu wa wa in boo siiwalee wa in tajar boo biralee wa in tajar boo feeñalee bil xawli ci kàddu fay noonu naka moom yàlla xam-xamam jiitu na ci lépp te day wey ya alamu di xam asirali na bu wa axfa ak la ko gën a làqatu li nëbb yàlla xam na ko li làqatu yàlla xam na ko waaw melentaan bu ñuul kukku di dox ci guddi gu lëndëm këriis ci kaw doj gu ratax bandang yàlla mi ngi gis tànk ba ni deret di dawee ci biir yaramu yoo yàlla mi ngi koy dégg mi ngi koy gis allahu yàlla day mooy yàlla laa ilaha illa huwa laa nekkul laa musuta nekk laa du nekk mukk ilaaha borom boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu du jur lor lahu aj nekk la ñeel yàlla al asmaau turi melokaan yi al usna yu sell yàlla mooy rahim mooy rahman waaye mooy karim mooy xalim yàlla mooy azim yàlla mooy hakim waaye mooy samiu waaye mooy basiru waaye mooy xabiru kon yàlla dara wëcc ko kon mi yàlla mi ngi wax ci mbiru yonent yàlla Muusa ñi nga xam ne nag dañoo xamul alquran dañuy foog ne alquran waxtaane Muusa dong la yàlla jógal déedéet Moussa dafa jaar foo xam ne ko ay nit jaar ci bu ñu maree moo doon dóor xeer bi ndox ball ca fukki bët ak ñaar bañ nekk ci àll ba di désert tàngoor bi sonnal leen yàlla wàcce niir seen kaw yëguñu woon tàngoor bi yàlla di wàccee ñam bu ñu togg asamaan ah di leen ko àndil almanna wa salwa Moussa dem na ba dégg waxu yàlla Moussa yàlla jox na ko fukki àlluwa balaa balaa tawraata mu wëlbate ko jox ko tawraata Muusa jaaruwaayam dafa métti te gudd lool saa su yàlla di wax ak Seydina Muhammad mu di ko miisuloo mu jël dara ci Muusa dala ko ko tegal buy wax ci tawhiid mu jël tawhiidu Muusa tegal ko buy wax ci tukki bu métti mu jël ci tukki Muusa ndax ba muy daw di dem Madiana jëlul ndox jëlul lekk ci àll rek la daw ba muy del si xamuloon ne moom yonent lay doon ci àll googu jabaram wasin mu gis safara na safara sele maa ngi cay dem du jomb ma am ko ma may safara ma tàngal ndox sama jabar sangu ak liir bi wala ma fekk ci safara sa ku xam yooni misra mu daal ma ko woon ma dem foofale moo tax bu yàlla di tudd say Muusa ci alquran bari na lool waaye fu mu wax a Muhammad rek lu toll ak dund Muusa mu àndiwaat ko ngir mu giifloo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii la waaye du benn anam gi de tajaanus la kon na ngeen ko déggee noonu la yàlla mu ngi wax si mbir yonte Muusa wa hal ataaka ndax dikkeewu la xadiisu Muusa waxtaanu yonent yàlla Muusa ba Muusa dawee dem dëkk bu ñu tuddee Madiana ca kër yonent yàlla bu nekk na fukki at mi ngi sàmmal sey Seydina bu fukki at mu ngi ci àll bi di sàmm rek lii metti na yonent yàlla Suwaybu daal di ko may doomam te mooy Safura muy jabaram ba ñuy delsi nag Muusa mi ngi ànd ak coggal yoo xam ne coggal yoo bëri na lool mu bañ bu yaa bu jaaree ci yoon gu mag gi ah alkaate firaw nay daal di ko gis jël alalam yóbbul ko mu daal di jaar ci ñàll gi far mu réer yoon bi ci bés boobu nag jabaram fekk mi ngi ëmb mu matu rek daal di wasin ci àll googale waa ah, wasin na dafay soxla ndox mu tàng Moussa daal di geestu rek gis benn montagne safara di tàkk ci kaw te dafa bokkoon ci aaday mag ñi ku am alal bu baree bëri dafay taal safara ci kaw ay montagne pour bu ko ay nit gisee ñëw foofu foofule mu dafa leen xéewal ngir ngir ay ay taggam daal di lool ñu di ko tagg lool ba Moussa gisee loolu mu ne ah léeg day safara la bu ma fa demee danaa am safara bu ma tàngalee sama jabar bi ndox danaa fa fekk nit it ku may woon yoon ba danaa jaar ci àll bi ba yegg te na ay nitam duñ ma gis moo tax Moussa ndeke ba mu demee la muy gis du safara eh, waaye lu kaaw teefu la mi ngi fekk safara sa mi ngi génn ci benn garab safara sa reen yaa ngi takk dart garab baa ngi takk bànqas yaa ngi takk cat yaa ngi tàkk xob yaa ngi tàkk tóor tóoree ak meññent ñu ngay te lakkul ah lépp mi ngi tàkk te fenn ci amul saxat amul tàngoor mi ngi sedd guy Moussa xam safara si ma xamoon ak safara si du benn kon lii du safara moo tax ya mi ngi koy te is fàttalekul raa mu gisee ba mu fa ci la li ahli ay nitam kusu ko inni naka man dey aanastu seen naa naaran safara la alliya amaat na la alliya du jomb dey ku ma dikke leen min haa ci safara soosale bi xabasin aw gilint aw ajid wala ma fekk ala naara ci safara sa xudan eh, ku ma koo xam mën a gindi ku a teg ci yoon eh, xudan koo xam ne eh, jub jub jub la ku may jubal ku may teg ci yoon mu mën a yegg ba du ma am benn coono waaye na fala ma ba mu dikkee safara soosale nuu di yàlla wooyeef ko yaa muusa eey yow muusa ini man de ana man mi rabbuka man maay sa boroom ah, yàlla yàlla gi ngay dégg de man la man maay zil mulki wal malakut man maay zil izzati wal jabarut man maay ki fi jëkk man maay ki fi mujj xëy na jëkkuma kenn du ma fi mujj de man maay ki la bind maay ki bind lu dul yow it ah, ah faxla na nga summi na alayka sa ñaari dàll ah déedéet du ñaari dàll de keroog maa ngi déglu ci rajo bi benn sëriñ mi ngi firi ah, ci benn télévision bu nekk Arabie Saoudite ñu ko tuddee Iqra ah aba ah, yënd de waaye day mi mu koy waxee nee na dàll ba dàll mbaam euh, euh, dàll ba deru mbaam la woon moo tax yàlla ne ko summil sa ñaari dàll yi mu ne teggin la ko yàlla doon jàngal ah déedéet ah déedéet na alayka bii déedéet du ñaari dàll de làkk arab dafa jagante jagante go hamne, jagante gu dem dayoo la sapt, boo ne sabt Bone sipt, samedi boo ne sibt mooy dàll karbet boo ne subt mooy naaf jagante Bone salam, moy jamu. Bone silam, moy silaam Bone doj boo ne ay poli baran loxo buy bul di génnee ndox xam nga lii nag bu fekkee sa njàng sorul ci làkk naar ah nga ràññet la du yomb dafa mel ci olof nga lii dënn lañ koy tuddee ci kaw biir asamaan si dënn na hmm? waa ji nee na ko dënn di ko xool fay fay sant la fay biram naka sama mbokk bi waaw fay waaye safara ji fay na bor bi fay nañ ko jigéen bi doon sëy fay na lii ci làkk bu nekk la am boo demee ci bambara boo ne sira sira mooy póon sira mooy dong jigéen bu taaw taaw bu jigéen sira mooy yoon loolu gi nañu lii waaye boo demee ci séeréer boo ne moon mooy bukki boo ne moon mooy biteel boo demee ci français boo ne pain pain dina fiiri mburu ah pain du mooy mburu waaye boo ne pain de change mooy doom yi buy lépp pain rek la anglais tamit noonu rek boo ne book mooy livre boo ne book mooy téye téyal ma benn place teg euh, euh, book book one place for for me téyal ma benn place te book rek la BWOK gis nga yëpp benn rek la boo ne miis ci anglais miis dana tekk jigéen miis dana tekk rëcc na ma maa ngi doon topp otoraay waaye miis na ma rëcc na ma waaye boo ne misis ne miis miis jigéen lay tekk mooy mademoiselle làkk bu nekk am ne xeet yi moo tax ba ma déggee mu neen na aleeka sa ñaari dàll yi deru mbaam la woon moo te yàlla na summi ñaari dàll yi waaw Moussa summi dàllam ana lan lay jëriñ yàlla te dañuy sol dàll dañ koy jullee dàll sang du mooy xuffa daal sax dañ koy jullee man maa ngi ko njëkk a gis ci sëriñ Basiru Mbàkke yàlla na yàlla yërëm ko taasu ci barkeem benn tàkkusaan fii la ko julli ci dëkk bi booba jàkk bi néegu ñax la maa ngi gis keroog sëriñ bi moo ko liqaamal mu daal di ñu jiite yàlla na yàlla fay yàlla na ko yàlla fay ci tàkkusaan boobale kon daal dinañ ko jullee kon na alayka bii du ñaari dàll yi ñu xam de na alayka mooy na nga bàyyi siwaa ak xayru lu dul ak kudul lépp bàyyi ko nga gis yàlla rek yow Moussa bàyyi lu dul ak kudul kudul yàlla lu dul yàlla bàyyi ko yaa ngi foo xam ne kenn ne ko kudul yàlla kon na alayka bii du dàll de kon waaye moom mi ki ko wax yàlla na yàlla dimbale ko yaara bi fa la toll di wax kon yàlla nee na Moussa faxla an sumil na alayka sa ñaari sa ñaari dàll yi waaw na ngeen ko wax noonu rek comme noonu lañ ko bindee faxla sumil na alayka kudul ak lu dul innaka naka yow Muusaa day bil waadi yaa nga ca xurba al muqaddasi tur xurba ñu sellal te tuwaa mooy xurba ñu tuddee tuwaa xurba nga xam ne dara mosu faa nekk bu dul yàlla mooy yàlla mosu faa am jur sax musufa faa fàdd morom juram Muusaa daal di dégg wax googale ah wax boobu rëy na ci yàlla buy wax dow ne nopp mooy dégg waaye yàlla buy wax bët dafay dégg làmmiñ dafay dégg bëñ dafay dégg siiñ dafay dégg butit yi mbàq yi kërandoom yi purux yi ah yax yi yuq yi siddit yi lépp dafay bokk dégg rek musaa yaramam bi mi ngi dégg waxu yàlla yàlla ne ko waana ey man yàlla tartu ko tànn naa la musaa ci sa kaw nitu jamono lii dox tey ci kaw suuf ah yow laa ci tànn fastami na nga sàkkoo déglu li maa ñeel ja nga xam ne yuha des na ko juux ci yow Moussa inna nii nakaman yalla ana allahumma li yalla inani nakaman mi ana allahu seetal li yëpp ya yàlla wax na yow man mom ki yegg ya ya ci yàlla ki xam yalla li yëpp yàlla mi ngi wax ak ci aaya bi inani naka man mi di addu ana man kortu allahumma di yàlla la ilaha illa ana la nekkul musta nekk te du ilaha jaam boo xam ne jaamu ko dana jur sang boo xam ne jaamu ko dina jur njëriñ ñàkk koo jaamu di du jur du jur di jur la amul illa an abudu man yàlla fa abud nii nang ma jaamu topp ndigal bàyyi tere wa aqimi salaata na nga taxawal julli yow Muusa waaye bul julli rek di patam patam bi de li zikra ngir fàttali ma man yàlla ngir fàttaleku ma bu fekkee yaa ngi julli te gënee jegeñ yàlla ah, xamal ne sa julli yàlla nangu ko yaa ngi julli yaa ngi mooy yàlla eh, xamal ne sa julli yàlla nangu ko waaye booy julli ngay gën a jegeñ yàlla yàlla nangu na sa julli googale am na ñoo xam ne seen benn rakka àddina attanu ko am na ñu julli fukki rakka waaw fukki rakka yooyu macha allah dimension yi duñu benn inna saata ah naka tukkik àddina day aatir na aji dikk la tukkik àddina day lu dikk la nëbbam bu jékki dayoo tuuteetee mu feeñ da nga làq ba mu mujj a feeñ waaye da nga feeñal ba mu mujj a làqatu rek lii la yàlla di waxee fii akaadu xaawaat naa uxfiha eh, na bëgg a daal di ko mujj a feeñal ah wallahi man yàlla maa ngi def di li tujza ngir be fayeef kullu nafsin bakkan bu nekk bi ma ca la nga ne tasaa dana ko jëf kenn ku nekk la nga jëf da ko fekk sa yowmal naka bu mu la gàllankoor bu mu la anha walis la digle man koo xam ne laa yuminu du biha ci loola le wa taba koo xam ne topp na hawaahu bànneexu bakkanam bàyyi ko mu dem fa tax dana torox dana yàqule di wax ak dem na bitit mi ngay patine mi ngay lox safaraa ngi nii ah safaraa ni di lal di génn ci eh, reen yi safaraa ngi ni di génn ci peeru garab bi ci dàtt bi ni di ci ni di ci xob yaa ngi nii safaraa nga ci tóor tóor baa ngi nii safara baa nga ci ah meññent baa ngi nii safara baa nga ci te moom gisul saxat te lakkul te gisul tàngoor ndeke du safara nuurul ilaahi la allah nuuru samadul ard masalu nuuri ka miskaatin fiha misbah al misbaax fi zujaajatin azujaaja ka annaha duriyun ah kon mbir maa ngi ndeke leer ab yàlla la leer yàlla nag laa sharqiya wala xarbiya leerag yàlla day jolli rek ndeka la muy gis du safara waaye leerab yàlla la yàlla di bëgg defal musa di wax ak moom ne ko yow boobu Moussa mi ngi yor benn yat mu ko maa wa ma tilka bi yaminika ya musa bant bii nga yore lan la ah Musa xelam tàmbalee dal ah yàlla de mi ngi waxtaan ak man wa ma tilka ana lan loolu ah ana lan loolu bi yaminika sa ya Musa, musa ah Musa daal dina xaala mu ne munoon na waxe asaaya sama yat la waaye neexaayu waxu yàlla ga yàlla buy wax sa yaram yëpp mooy déggandoo sa dënn day dégg sa kawar dafay dégg sa biir dafay dégg sa awra dafay dégg say wee dafay dégg lépp lu ci sa yaram dafay dégg Moussa kontaan munoon na tontu yàlla ne asaaya sama yat la waaye yéen jàng xam-xami balaara dafa ne hiya dafa ànd njëkk a hiya muy musnad daf ko wat dafa wutal wax ba laytaay soog a tey wax ba lii lépp ngir bànneexam la muy dégg ci yàlla ci la ne hiya xaala ci la waxe moom musaa mu ne hiya lii day asaaya sama yat la yàlla ne tekk yàlla waxatul Muusa bëgg yàlla waxaat mu ne ko moonte yàlla yat gi day atawakkaw damay sukkandiku aliha ci yat bi mu may dox yàlla ne tekk yàlla waxatul musaa bëgg yàlla wax mu ne wa axusu damay acca accal bihaa ci jur bi ci bihaa ci yet gi ala dama ciy bàccal sama jur yi xob yi ñu lekk dama leen ciy acc accal ngir ñu jaar ci yoon yàlla tontul mu ne wali am naa fiha ci yat bi ma aari bu ay soxor uxraa yeneen am naa ci yeneen aajo bëgg rek yàlla laaj ko foo mu mun a dégg baatu yàlla ndek yàlla am na leneen ci yat gi bu dul lu Muusaa wax Muusaa nee na yat bi daf koy sukkandikoo ah Muusaa yat gi def ci dàqe ay juram Muusa yatam gi même buy def tànt daf koy taxaw teg ca tànt ba yàlla na ko nag déedéet Muusa li nga wax yëpp dégg naa xaala ci la yàlla waxee alqiha sànnil yat bi ey yaa Muusa sànnil yat gi fa alqaaha Muusa daal dina yalax yat gi fa iza amtit fa iza ci saasi hiya moom yat googu hayyatun soppeeku daal di doon jaani ñàngoor tasaa di dox ah du xam ngeen jaani ñàngoor jaani ñàngoor tiitlu na fii nag maa ngi bëgg ngeen déglu dara am na benn góor bu ñu tuddee Salman Rushdie ah, mu ngi doomi Inde la waaye dafa mujj murtat dem ci yeneen diina bind benn téere ñu tuddee ko ayatu seytaane ay aaya seytaane mu ciy diingat seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xamul ne moom diingatul yonante bi la muy wax dafa foog ne dafay suufeel yonante bi waaye dafay njëkk a feeñal darajaam hmm? dafa ne Muhammad comme jàngul dafa di fàtte yenn jamono mu ne ba mu sànnee yat ba dafa mel ni yeew yenn jamono mu ne yat ga ba ko sànnee dafa soppeeku mel ni jaanu ngoolool yenn jamono mu ne yat dafa mel ni ñàngoor comme Muhammad jàngul dafa di fàtte waaye déedéet yàlla dafay décrire place boobale dafa ne ba mu sànnee yat ba ba mu nekk jaan dafa ngand ni yeew ah, ngir jaan yëpp yeew moo ci gën a ngand dafa gaaw ni ngoolool ngir jaan yëpp ngoolool moo ci gën a gaaw waaye dafa ñàng ni ñàngoor ngir jaan yëpp ñàngoor moo ci gën a ñàng ah kon nii la waxee moom nag xamu ko comme jàngul àllam dafa gàtt waaye seetal buuri Angleterre jox na ko benn médaille médaille boo xam ne ci réew moom moo gën a fort nee na kii jàmbaar la waaye xamul ne def koo alak ku toll ni Élisabeth am lu toll ni juróom ñett fukki at ne da ngay feetu say fan yow amoo koo neexal bu lu ko ŋàññi sayidna muhammad li tegtal la ne tubaab wallahi du bëgg ummatu muhammad ba yowmal qiyaamati ku lay dóor tamit naan lii nànk nànk dafa bëgg nga ànd ak rek walan ankal yahud wala nasara Hatta tattabiya millatahum saa su la tubaab tafee ci boppam wala yahud fekk bàyyi nga diinay muhammad kon nañ leen bàyyi ñu ak kon al mbir maa ngi fa alqaaha Muusa daal di sànni yat ga fa isaa ci saasi hiya moom yat googale hayatun daal di ñàng mel ne ñàngoor tasaa di dox xaala yàlla daal ne Muusa jëlal yat bi wala taxaf bul ragal sa nu iduha xel si nañoo delloo yat gi siirataha ci melokaanam al ula melokaan gu njëkk ga Muusa daal di jël yat gi rek ba mu ko jàppee mu dellu di yat nekkatul jaan ba mu jëlee yat ba rek ba mu jëlee jaan ba rek mu nekkaat yat ci loxoom yàlla na ko bu kooku benn aaya la Moussa dugalal sa loxo ci sa gafaka bi ba mu dugalee loxoom ci gafaka gi rek daal di ko génnee mu weex tàll moo te Moussa nit ku ñuul la woon de hm? nit ku ñuul dugal loxoom ci poosam génne ko mu mel ni yaramu tubaab lii moo lu yéeme waaye nit ku weex dugal loxoom ñu ne dafa tàkk mel ni làmp yàlla waxul mel ni làmp de baydaa rek la yàlla wax hmm? am na benn téere bu ñu bind ci anglais hundred amazon fact about the negro téeméeri dëgg yoo xam ne nit ku ñuul lay jëmmal uh, tegtal yu wóor ñoo na fa ne Seydina Moussa dafa ñuuloon hmm? am na yahud yoo xam ne dañoo ñuul am na ñu de falasha ñu ngi nekkoon Éthiopie dañoo ñuul kon Moussa nit ko ñuul la woon deram dafa ñuuloon yonent yàlla Ismaila dafa ñuuloon ah Zulqarnayn al Maqdu Alexandre al Maqduni dafa ñuuloon Luqman al Hakim dafa ñuuloon kon ñuul lan moo ci nekk Xaadimu Rasul dafa ñuuloon Alhaji Malik dafa ñuuloon Cheikh al Islam dafa ñuuloon Cheikh Abdul Qadir Jilani xonqul woon de dafa tikkoon Cheikh Ahmad Tidiane Chérif xonqul woon de dafa tikkoon mi ngi dëkk fii ay nomades ci Algérie boo demee ba léegi ci biir barbarie da gis seen xonqaay day mel ni pël rek waaye duñ ni arab kon ñu lay lan moo ci nekk ñu lay fierté la kon mbir maa ngi noonu le hmm? wal mu na nga tàpp yadaka sa loxo ila janaaxika jëm sa mbagg bi jëm sa ron loos gi jëm sa gafa gi taxaw ju dana génn baydaa di aji weex tàll min xayri suuyin fekk du du lay lor aayatan lii aw tegtal la aayatan lii aw aaya aw junj aw xar la eh, uxraa benen li nuriya nag ngir li nuriya ko ngir ñu won la min aayatina suñuy aaya suñuy tegtal alkubra yu ngande yi aa yow Muusa izhab demal ilaa firawna innahu naka moom na day tara bew na ba Muusa Muusa na ko ey yow yàlla man sama làmmañ dafa totom li may wax nit mënu koo dégg te na buur la borom doole la yow yàlla man sama ñaari tànk yi naan na wuyul ne ko yow yàlla nanga def sa ndimbal ci man xaala ci la waxee rabbi sama borom israh nanga ma defal sarxu sudur hmm? sarxu sudur na nga génnee tiituwaay ci man na nga génnee ragalwaay ci man na nga génnee déngi-déngi ci man na nga génnee sikk sàkk ci man nanga nga feesal sama xol ak fit nanga fa def njàmbaar nanga fa def aw dëggu na fa def aw ñor hmm? sarxu sudur mooy alam na nasrah laka sadrak nang ma defal sarfu sudur rabbi yow sama borom israeli nang ma nàmmal nang ma nàmmal nang ma leeralal sadri dënn suma te mooy sama xol waaye yassir li nang ma yombalal amri sama mbir waaxlul yow yàlla na nga ficci na nga tekki eh, uqdatan pas-pas bi nga xam ne min lisaani mi nga sama làmmeñ hmm? yaf ko ba ñu mën a dégg li sama kàddu danaa nettali ana lan moo tax firaw na làmmeñam daal di doxte moon danaa ci ñëw léegi yow yàlla sama mag mi ngi foofale ku ma bokkal ndeeg baay moom waxam lu leer la dama bëgg nga defal ma ko muy sama jaraaf bu mu may jottalil fajal na nga def lii ñeel ma waziri nag ma defal waziran waaw aw jaraaf wala nag ma defal waziran aw na waziran nag ma defal jëmm joo xam ne min ahli sama mbokk la te mooy haaruna axi sama mbokk mi asdud may may dëgërlu bi ca moom asri sama ndëgër laay asdud waaw ma yeew ba mu ma yeew ngodd bi ca moom asri sama laxasaay waa shiriku ma bokkaaleeg moom fi amri sama mbir mi kay ngir nu sab yaka ñu mun laa ñu mun laa kañ di la bàkk kasiran lu bëree bëri lu kenn mun ñaar moo ko ko dàq yàlla defal ma loolu mun laa tudd kasiran lu bëree bëri innaka naka naka yow yàlla day eh, kunta nekk nga basiran eh, daa ji gis di njàccaar bi naa ci ñun xaala ci la yàlla waxee xat dëgg-dëgg ut utiita joxeef na la suulaka sa laaj li nga doon laaj jox nañ la ko yaa Muusa euh, sa may naa la fit may naa la ak dëgër may naa la sa mbokk moomale muy Haaruna ah muy kuy ànd ak yow di jottali wala xat dëgg-dëgg daal man nan na xéewtal nañu alika ci yow Muusa maratan uxra beneen bi yoon is fàttalekul aw xay naa ba ñu juuxee ilaa ummika ah ngi ñëw na ci juddu Muusa lii lépp ngir ñu mën a wàkkiirlu jamonoy Muusa ba muy juddu xërëmkat yi dañoo waxoon na Firawna na bii turam dëgg-dëgg du na de mi ngi tudd tuut anj xaamuun tuut anj xaamuun waaye Égypte ku fa farlu rek ñu ngi lay tuddee na mu ngi mel ni boo demee ci romain yi ku fa farlu rek ñu tuddee la Kaysar boo demee ci réewu Iran ku fa farlu rek ñu tuddee ko Kisra ah. boo ñëwee ci boo ñëwee fii ci ci kajoor ku fa falu ñu ne la dammel boo demee ci waalo ku fa falu ñu ne la eh, barak boo demee fuuta ku fa falu ñu ne la almaami boo demee ndukkumaan ndukkumaan fii ci Kaffrine ku fa falu ñu naan la bëlëb kon lii la dañoo ne na nag ne ko am dana am doom bu juddu si ah mooy daaneel sa nguur gi de sa alkane ci loxoom la nekk Firawna di rey Firawna di rey ba rey fukki liir ak ba rey fukki junni liir ak ñaar waaye yàlla de yaay Muusa ëmb na ah yaay Muusa ëmb na xamuñ ne ëmb na am nañu ne biir kër Firawna sax la ëmbee waaye eh, ëmbam ba kenn gisu ko daawul jafle daawul tufli xelam daawul teey ba mu demee ba wasin nag mu dem ba mu demee ba wasin nag fekk am na ñoo xam ne ay alkaati lañu ñoom ñoo doon doxal firawna ay mbiram ñuy dugg ci ko yow soxna si dégg nañ ne dangaa am doom ba mu bal mu ne awma doom bañ demee ba bëgg a gis doom ba moom soxna si fekk mi ngi togg def na diw ba mu saas mu daal di jël doom bi sànni ci biir daal di ko tëj ñu ne ko walla jeex na dañ ko bëggoona a rey far njëkk na ko rey noppal nañu ba ñu demee ma ubbi cin ba mi ngi mel ni Muusa ci biir ndoxu galaas la nekk dara jotu ko kon ku yàlla garanti mu mucc nga kon nañ delluwaat ci yàlla ci la jëlee doom bi nag daal di dem ci benn ministre ne ko dama bëgg nga daajal ma kees mu di ko daajal kees di ko daajal kees mooy Habib Najaar mu koy daajal kees mu ne ko na nga bàyyi benn bën bën mu ne ko bën bën bën pour lan la mu ne ko pour mu nokkee ko mu ne ko dangaa am doom mu tiit xamatul mu wax mu ne ko damaa am doom mu daaj ko daal ko ko jox ah? waa ji nag ne dafay kalaama ji ci na ne ko gis naa ko am doom ndax ku waneet doom bu góor rek dañ lay yéegal garaat jox la alal bu bëree bëri jox la ay façon mbaam ak ay géléem mu dem daal di ñaan audience na dama bëgg a waxal na benn mbir ba mu duggee rek ne ey yow ku màkk yow na rek yàlla daay téye làmmiñam mu daal di luu mu tàmbal naan li Firawna na génnee leen ko lu tax ngeen di bàyyi ñu mel ni ñuy yegg si fii mu génn ba ci biti làmmiñ bi daal di bàyyiwaat mu ne monte de sama làmmiñ dara nekk ci dama tiitoon rek waaye lii may wax Firawna lu ko ñor la bu ma ko waxee ñun ñëpp dinañ ci jaar baax la bàyyi ko mu dugaat mu ñëw ne yow ko màgg ki yow ko baax ki man day dama yàlla tey làmmañ bi mu tàmbal di def ni firawna daal dina génne leen ko ñu génnewaat waa ji ñetteel bi nag muy wax ci mbedd bi firawna damaa gis benn jigéen am doom maa ko defal kees firawna doom ja góor la mu di ko wax ndànk ñu bàyyi ko mu dugg ba mu ne firawna yow nit ku màgg ki yow man day dama defar kees kees ga ab defal naa ko ñaari bën bën dañ ciy dugal rek yàlla téewaat mañ bi firan daane gaa yi kii laal leen ko tuuti ñu laal ko téye dóor ko ba addinaam bëgg a yàqu ba mu demee del siwaatu kii ci ñu njëkk a ñu njëkk a yoon yonent yàlla Muusa ci la bokkoon lii wax na doy kéemtaan yaayam nag mu daal di ànd kees ba yaay bi dugal ko ci kees bi daal di ko sànni ci géej gi waaw géej gi di ko yóbbu géej gi di ko yóbbu rakkam bu jigéen daal di ko topp te mooy Mariama du ma bi mu jur Isaa de waaye beneen Mariama la seen tur a daje waaw eh, kii baa ngi daw ndeke na dafa jàddaloon géej gi mu jaar ci biir këram mu amoon benn doom boo xam ne du doom bu mu jur de Firawna amul doom doom boobu dañ dañ ko adopté woon mooy doom buñ ko dénkoon la doom bi nag dafa feebaroon ba am feebaru ràmm waaw docteur yi ne ko sa sa yàngoroj gi mënuñ ko faj waaye njël balaa naaj bi di génn na dem nga sangu ci géej gi boo bëggee tëdd guddi na nga mujj a sangu dana wàññi dana wàññi xasan gi fi muy sangoo daal rek ci la kees bi ne pëlëb ci kawam mu ubbi kees gi mu fekk ca liir ba mu ko laalee rek yaram bi yëpp daal di woo ci saa si amatul jàngoro wallaahi mu yóbbul ko firawna firawna xool ko ne kii du jomb kiñ wax la de dama koy rey yow ni nga feebare nga laal ko rek sa yaram wow euh, du jom mooy kii soxnaam nag jullit la woon ah bintu mazahim ah waaw waaw kooku ne ko bu bàyyi ko yow yàlla nga naka ni nga ko waxee sa yàlla andil na la doom yow musoo am doom kon lii euh, fierté la ci yow dangaa war a bëgg ah ci la bàyyi Moussa foofale ndeke rakkam mi ngi ko doon seet ba ni mu duggee kër na moom la yàlla di nettali fii ne is fàttaleekul aw xay naa ba ñu juuxee ba ñu juuxee ba ñu mayee ba ñu yenkewelee euh, du malaaka bu ñëw ci moom de waaye yenkewal la is fartlekul aw xay naa ba ñu yenkewale ila ummi Moussa jëm ci yaayu Moussa ah, maa la nga xam ne yuuxa dees na ko ko juux yàlla nee na ko yow yow yaay yow yaayu Moussa anax si fii na nga sànni Moussa bi na ko giqi nanga ko teg fiil taabuti ci biir kees gi wax si fii na ko giqi na nga ko sànni waaw na ko sànni fil yàmmi ci ñukk gi mooy géej gi fal yulqi na ko sànni al ñukk gi te mooy géej bi saali ci tefes ga yaxusu dana ko jël aduwun noon lii ñeel ma te mooy firawna wa aduwun te noon la lahu ñeel ko ah Moussa day wa man yàlla man maa ne yalax man maa wàccee man maa sànnee alika ci yow mahabatan mbëggeel min ni gu bawoo ci man aaya googu aaya mbëggeel la képp ko di jëfandikoo dañ la di bëgg de rawat na boo koy tudd ñetti téeméer yoon fukk ak yoon ak ñetti yoon da ngay neex doomi aadama yi neex nit ñi bokk na ci de boo neexul nit ñi fi nga jëm duñ fa jëm te bu boobaa la ngay woote duñ ko wuyu ah na ngeen ci bàyyi xel wa alqaytu alayka mahabbatan minni lii wali tus nga wéy di jëf rek ala ay nii ah, ci sama ci sama càmm man yàlla ci sama gis man yàlla ci sama kiiraay man yàlla is fàttalekul tam si bay dox uxtu ka sa jigéen gi te mooy mariama mi ngay dox ci wetu ndox mi di seet gaal ana fan la nara yóbbu kees gi Muusa nekk fat ah, ba mu demee ba kees gi dugg ci kër gi ca lañ tàmbale nag firaw na ne na jigéen ñi ñëw ñoo ñu ko jox seen ween ku mu nangu weenam rek danaa la di fay nga koy nampal jigéen bu ñoo jox ko sa ween Muusaa ko nangu jigéen bu jow ñox jox ko sa ween du ko nangu mag yonent yàlla Muusaa te mooy Maryama du Maryama yaayu Isaa de déedéet mu ñëwee daal di rang daal di rang ba yegg si ba mu yegg si ñu ne ko yow jànq nga ana looy doyee nampal mu ne waaye dama xam benn jigéen bu set bu sell koo xam ne moom day bu ko joxee weenam dana nangu ñu ne demal woo ko ci la dem wooy yaay yaayu Moussa ba mu ñëwee mu jox ko weenu ndey joram ndeysaan mu daal di ko xàmmee mu namp ko mu jox ko weenu càmmoñam mu daal di ko ñu ne ko amoo doom ah mu ne ko am benn alkaati daan ne ah déedéet kii rey na doomam kii mooy ki sànni woon doomam ci diwlin ba moom lañ la doon nettalil ndeke xamuñ ne mooy doom bi ñu ne ko da koy nampal da koy nampal ah da koy nampal mu ne waaw nangu naa ko nampal waaye da ngeen may fay ñu ne waaye danañ la fay fii ngay des ci kër gi mu ne déedéet damay dem sama kër kay di ko nampal wala saa su nekk ma ñëw nampal ko delluwaat sama kër seetal ñu ngi lay fay yaa ngi nampal sa doom lii de ay mbaaxu yàlla la moo tax mu ne is fàttalekul tam si ba muy dox uxtuka sa mbokk mu jigéen bi fa taqulu muy naan hal at ndax du adullukum dama leen duma leen tegtal ala man ci koo xam ne yakfuluhu dana ko dana ko dana ko yar yakfuluhu dana ko nandal yakfuluhu dana toggoo ay mbiram moo tax yàlla nee na farajaanaaka delloo nañ la yow Muusa ilaa ummi ka jëm sa yaay kay taqara ngir na sedd kay taqara ngir na dal ay nuhaa jëmmam ja ngir la mu doon jooy jooyam ya dakk waaye ba tamit daal di sedd guy rongoñ dootu ca génnati wala tahzan bul na xarlu a yow Muusa jaar naak yow fii yëpp wa qatalta reyoon nga nafsan bakkan fa najjay naa ko ñu musal la minal ghammi ca xunjuga waa loolu yàlla dina ca dikk ca kanam Moussa ana lan moo ko dotom loo benn bés la woon na dafa woote woon réunion bu rëy àddina bi yëpp daal di ko fekk si mu ñëw mi ngi takk ay jama ay or mi ngi toog ci siisam bu ngand ga kenn ñemoo ko xool muusa di raam di raam ba ñëw ne dafay téye ci siisam ba jóg taxaw mu daal di ko jëñëx Moussa dellu gannaaw jaariwaat fële di raam ba taxaw ci siisam mu daal ko jëñëxaat ñetteel bi yoon nag mu ne mu sëgg na dafa koy puus Moussa daal di téye ca sikkimam ba daal di ko ñoddi lool na gannaawam daal di koy rëcc mu ngelawal xii ba mu ngelawalee nag kenn ñemewul ree buur bu ngelewal ana kan mooy ree da ngay sëgg rek <laughs> ba loolu amee nag mu daal di mer ne kiñ doon wax kii la daf koy rey moom fi mu toll ci ponkalaay kii xàcc moom sikkimam rek gannaawam daal di rëcc ne ko kii mooy kooku ñu ne ko léeg soxna sa ñu ne ko léeg kii xale la ñu ne ko dama koy rey mu ne ko jëlal ñaari pot bii nga def ci tàndoor bii nga def ci safara bu jëlee tàndarma bi nga xam ne kooku la bu jëlu tàndarma nga xam ne xale la Moussa di raam di raam dem ba bëgg a teg loxoom ci tàndarma bu xonq bi rek yàlla na Jibril accakat bu tegee làmme bu tegee loxoom ci tàndarma ba firaw na daal di ko rey te kon yow yow Jibril sa tur danaa ko far ci diwaanu malayka yi nee nañu keroog Jibril juróom benn téeméer laaf yëpp la ubbi benn yoon subhanallah ba muy teg loxoom ci tàndarma ak mu koy fël mu teg ko ci safara si lépp di benn rek yal na yàlla fay jibril ci la Moussa jëlee sa xal ba la mañ yëpp lakk moo taxoon mu dotom buy wax kenn du ko dégg comme Haaruna nag magam la ñoo yarondoo kooku dafa doon dégg li muy wax moo taxoon kooku moo kon lii moo andi woon dotomu yoon ci yàlla Moussa ga wa man amiru ah nan ko su fil xalqi yàlla bu la mayee dara ba ñëpp ne est am lu mu dind ci yow ñu doomi nga amul loolu amna? kon yàlla mi ngi nettali yow Muusa ci ginnaaw loolu xeex nga ak doomi aadama di ko dimbale nga daal di ko rey kat ki mu doon xeexal nga rey ko benn yoon lii lépp man yàlla jéggal naa la ko jàppewu ma la ko kon sama xiiwal yaatu na ci yow waxatal te rey nga nafsan bakkan fa najjay naa ko ñu jàmmal la minal xam mi ca xunj googale wa fattan naa ko lëjaloon nañ la futu nan ay lëjal yoo xam ne xamoo noo ciy génnee waaye lépp jële naa la ca fa labista nga sax ni na at fi ahli madiana ci ñooñ madiana nga daal di daw dugg àll dem madiana fekk fa ku baax te mooy yonte yàlla soaybu su ma topp ji ita nga delsi su ma topp ji ita nga dikk ala qadarin waaw ci tëralin waaw ci anam ci ay atte yoo xam ne ya, yàlla yàlla moo ci ànd yaa man maa la yaral sama bopp maa la defaral sama bopp wasanaatuka maa la tànnal sama bopp li nafsi ñeel sama bopp sama jëmm jëde isab kon demal anta yow yow Muusa wa axuka ak sa mbokk bi bi aayaati ngeen ànd ak sama aaya yi wala taniyaa bu leen gàttañlu wala taniyaa bu leen yokkot wala taniyaa bu leen bu leen bu naag naaglu fii amri sama mbir izhaba dem leen illaa ilaa na jëm ci na firawna innahu naka moom na day taraa fuuy na bew na waaye bu ngeen demee ci na bu leen ko ngañ-ngañ de aaya bii na ngeen ci bàyyi xel ah. ba yàlla di yoni ci firawna dafa ne bu ngeen demee na ngeen ko wax na ngeen ko wax wax bu sedd na ngeen ko wax bu du jomb xelam dana del si man yàlla fi ma jaar ak moom bu neexoon yàlla mu ne bu ngeen demee na ngeen ko coow xuloog mom daal ko gëdd du mun dara ci yéen waaye yàlla mi ngi jàngale diplomatie ah diplomatie du wax déedéet du wax waaw déedéet ambassadeur diplomatique du wax du wax mun naa am du jomb ah mun naa am du jomb lii mooy diplomatie waaye déedéet ah kon bu sa kilifa bu ne waaw nooy def luy nekk la bu ne duma ko def nooy def waaye du jomb amaat naa loolu mooy waxu diplomatique moo tax ba tey booy wax ak nit waxal lu nooy waxal lu neex yàlla nee na fa quulaa na ngeen wax lahu ñeel ko xawlan kàddu lay nan kàddu nooy la allahu du jomb moom yatazakkaru mu fàttaleeku daal di waaru dellu ci yàlla aw yaxsha wala mu ragal bàyyi mbewteem gi xaala na ngeen wax yéen ñaar yow haaruna ak muusa rabbana suñu borom day mooy yàlla inna naka ñun dana rag xaalaa ci lañ ah xaalaa ci lañ waxee rabbana ay yow suñu borom inna naka ñun day ragal an yafuruta mu jéggi dayoo alee naa ci ñun wala an yadra mu bew ci ñun daal di ñu duma xaala yàlla ne laa taxaafaa bu leen ragal yéen ñaar na nii naka man yàlla maakuma maa ngi ànd ak yéen ñaar ma yetullaay mi ngi noona le nitu yàlla yëpp moom lañuy ñuy wut inna laa ma saabirin ah ma al muttaqin ma alladina taqaw lii ma yetullaay boo ko amee jeex na dangay dem ba nekk yàlla rek laa yazaalu abdi yataqarab ilay bin nawaafil xata uhibbahu boo demee na ba yàlla gërëm sa lépp boo waxee yàlla ngay wax boo doxee yàlla ngay dox boo yëkkatee yàlla nga yëkkatil kon mbir maa ngi noonu la inna nii naka man ma akuma maa ngi ànd ak yéen ñaar asma u danaa dégg wa araa te danaa gis man yàlla borom bi fa atiyaahu na ngeen dikkee firawna fa quulaa na ngeen wax inna naka ñun dey fa quulaa na wax yéen ñaar inna naka ñun dey man haaruna ak man muusa rasulaa rabbika ñaari ndaw sa borom lañu hmm? rasulaani waaye dañuy dagg nuun ba hmm? idaafa ba la hmm? wa tasqutu nuunaani fil idaafa nahu laqitu saakinay rasaafa faarsil na nga yebal ma ana ànd ak ñun bani israil xeetu israil wala tu azibu bu leen mbugal dëgg-dëgg ji inaaka dikkee nañ la bi ayatin ci aw kéemtaan min rabbika bawoo sa boroom wasalaamun jàmm bi alaman nag ala man fas na ñeel koo xam ne itabaa topp na alhuda njub inna naka ñun day xat ci na ci ñun ñaar man anal azawa naka mbugal day dana wàcc ala man ci koo xam ne kazaba fen loo na wata walla te mu ne waxeet xaala ci la ci la waxe firawna ak di firawna ci fa man rabbukuma ana kan borom ñaar yaa muusa xaala ci la ne rabbuna suñu boroom allazi mooy ka nga xam ne ata a mooy jox kulla shay'in lépp xalqoom mbindéenam ah su ma topp hada moo koy gindi ni muy dundee yàlla day moo defar nit amul béjjén ñaari tànk la am amul geen mu defal ganaar ñaari béjjén waaye defal na ko njub waaw defal na ko ganaar geen goo xam ay dunq la bind nañ nag mu am ñeent tànk ak xar ak béy am na yu mu bind juróom benn tànk la am naka ay jargoñ am na lu mu bind juróom ñett tànk la am naka ay yoo am na yu mu bind ñeent fukki tànk la am am na yoo xam ne ay warwaraan la yi ay jaalaali la wala du jaalaali am na yoo xam ne benn eh, am na yoo xam ne amuñu béjjën naka fas ak mbaam am na lu am ñaari béjjën naka nag am na loo xam ne at bu nekk mu am béjjën mooy xeetu njamala boobu nekk ci àll xeetu bis boobu nekk ci àll at bu nekk mu sax benn béjjën am na yoo xam ne dañuy ëmb wasin naka nit am na yoo xam ne bu ñu ëmbee du ñu wasin naka jaan googu nga xam ne mooy jaana bànd mooy ay doomam dañuy dañuy lekk mel ni taab daal di génn am na yoo ne dañuy nen daal di suul naka bar mboos ak mbëtt ak yalt ak si ndax am na yoo xam ne dañuy nen daal di bóof naka ganaar naka kanaara lii lépp yàlla mooy ki bind di ko melal lii la Muusaa wax Firawna waaye taxul Firawna gëm xaala ci la Firawna waxee fa maa baalu ana lan mooy soloy alquranil ula maasu njëkk yi fi jaaroon ana maam ya ana maamaatu maam ya ana ñoom qawmu aadin qawmu samuudin ana ñoom qawmu nuuhin xaala ci la waxee moom yonti yàlla Muusaa mu ne in mu ne elmuha xam-xami loola la day inda rabbi mu ngi sama boroom fii kitaabin yàlla bind na ko ci téere goo xam ne laa ya rab yi sama boroom ah téeram googale du fureeku du fireeku du ràpp du maxete mooy lawhul mahfuz laa dillu du sànk mukk rabbi sama boroom wala yen saa te fàtte du ko dikkee allazi yàlla mooy buur ba nga xam ne jaala moo def <clears throat> jaala moo mujjal lakum ñee leen al arda suuf si mahdan muy ay laltu seetal nit liir di tëddee ci laytaay noonu lañ doomi aadama di doxee ci kaw suuf ngay wàq di génne ay or ngay wàq di génne diamant di génne xaalis di génne armion di génne nickel di génne përëm ngay gas di génne ndox ah ngay gas di yëkkati ay étage lii lépp yàlla mooy ki ko def jaala moom yàlla moo def moom yàlla moo mujjal lakum ñeel leen al arda suuf si mahdan muy aw laltu wa salaka mu sóob lakum ñeel leen fiyaa ci suuf si suubulan ay yoon yoon bi boo fi jaaree penku nga jëm yoon bi boo fi jaaree so nga jëm yoon bi boo ci jaaree yaa nga jëm bët saalum yoon bi boo ci jaaree yaa nga jëm bët gànnaar wa anzala moom yàlla mooy kiy wàccee mina sama ci leen tiim maa am ndox ndox mi jógul ci niir yi de déedéet ndox mi jógul ci asamaan si waaye ci niir yi lay jóge de dégg nañ ko ndox mi doowul ci asamaan si lay bawoo waaye ci niir yi lay jóge am na ñu ne sax géej gi ni muy ni muy baxe vapeur bi di yéeg mooy wëlbatee ko nekkaat ndox mi wàcc rek yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi mooy génne ndoxi mbeex ci taw gi waaye mooy génne taw bi ci ndoxi mbeex waaye taw baa ngi génn ci niir yi afaraaytum ma allazi tashrabun antum anzaltum min al muzn ah am nahnu munziluun yàlla niir yi ci la ndox mi di jóge moote bu bu ñu bu malayka bi demee bay xaajal niir yi niir bii di daanu ji Sénégal di fa taw niir bii di daanu gànnaar nga dégg ni ñuy xiis xiisee muy dënn gi ñëpp di tiit ni ñuy dóorante melax di tàbbi kon lii ay mbiru yàlla la hmm? faaxarañ naa ñu génne bii ci taw bi azwaajan euh, ay xeeti xeet lu nekk yàlla def ko ay xeet min nabaat ci ay gàncax shatta yoo xam ne dañoo wuute hmm? gàncax bu nekk am na lu góor am na lu jigéen ca ay ci biir tóor tóoram foog lu góor la daanu ci biir lu jigéen li mu soog a nekk aw aw meññent ah, loolu daal di doon xoox saal saal ba yàlla teg ci xoox xoox ba mu teg ci ñam ñam ba mu daal di ci teg xob lii lépp yàlla moo fi jaar ak yéen kuloo lekk leen war aw ngeen sàmm an amakum seen jur yi ah seet leen saawo yi inna yi nekk la fii zalika ci loolu la ayatin ay aaya li nuhaa ñeel way ñaw yi ñi seen xel baax ñi dem bi am nuurul imaan lii def leen di jaaxal mbokk yi minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra suuf si ci la lañ ci lañ leen bind ah, ci suuf si nga jóge mbokk yi tegtal bu jegeñ seetal bu ñu tegee rajo sa kanam ah bu ñu tegee rajo sa kanam nga wàcc boo téyee antenne bi rek baat bi yëkkati ko waaye boo bàyyee antenne bi baat bi wàccaat hmm? am na batterie ba la mu soxla amul fenn bu dul ci suuf si te suuf si yow doomu adama suuf si nga am na lu ñu tuddee oxyde silicone ci suuf si la nekk rajo bi soxla na ko te amu ko yow nga téye antenne bi mu daal di ko am mu daal di yokk boo ko bàyyee mu wàññeeku waat doomi aadama kullukum min aadama wa aadama min turaabin ah kon ci min haa xalaq naa ko ci suuf sii lañ leen bindee woon ca maam ak ca baay aadama ak yaay hawa wa fiihaa nu idukum da ngeen dee bàyyi fi kër yi bàyyi fi oto yi mbubb yeeg dàll yi banque bi lépp dangeen ko fi bàyyi wa fiihaa nu ñu gasaat ba mu xóot dugal leen ci suuf si tegal la ay doj ci sa dënn balaa ngay xawee ko di dëpp tegal la ay xeer ci sa ndigg balaa ngay xawee ko di jaaxaan yëkkati sa bopp defal la ay xeer mooy sa njeganaay tekki sa tànk tekk sa loxo oyofal sa càngaay di la sotti suuf ba nga ne tabuus kenn dootu la gisati man mii di wax ak yéen mooy sama mujjuwaay yéen ñii di ma déglu foofu mooy seen mujjuwaay loo foor Seydina Muhammad moo la gën a foor te ca la jaaroon kenn du ci mucc rek kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalal karam wa minha ci benn suuf seen nuxrijukum lañ leen di génnee taaratan uxra beneen yoon mooy péncab yàlla ngeen dem lay ak moom bu kerogee booy ñëw solo dàll solo tubéy du silip du maillot de bin du caleçon du culotte du caaya du zimbang du njata du sër du pendal du mbubb du kamisol du serment du desu du musóor du tengaade du njolaay da ngay ne wëndëng sa ndeeg sa bàyyi niñ la juree woon yal na yàlla sutural ñu keroog yaa bi kon mbir maa ngi noonu la aaya baa ngoog aaya bi damay gis ay nit bu ñuy suul nit na nga gis ñu jël ay xeer di ko ci jàng di ko sànni ci bàmmeel bi loolu yaradiku la kenn warul sànni ci bàmmeel boo ko jegeñee defal xaccal suuf nga ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra waaye jël ay xeer di ko sànni ci bàmmeel ah, loolu loolu ñàkk teggin la loolu baaxul de bàyyi leen ko bu leen ko def ñaanal leen ko rek yàlla ah? du léegi nañ ko nañ ko ñaanal yàlla bàmmeel yi xóotaayam bu bu ëpp bu jéggi baaxul de na diggu doomu rek nañ ko jal tamit ndox miñ cey sotti du dara bilaal moo ko defoon ba naa muhammad faatoo ay mbokkam ñoo ko sang ñoo gas ñoo ko jullee moom saxaaba yëpp ñoo ko bokk jullee moom amuloon eliman ku ñëw jullee ku ñëw jullee lii moo tax yonte bi faatu na altine ci njël bet guddi al guddi allah wala ko soo ko denc sallallahu alayhi wa sallam ah waaye nit ki bu deeyee bu ngànt amul nañ ko suul rek bu ñu ko suulul fekk benn ngànt amul malayka yërmande dañ koy gedd malayka yërmande ku mu gedd foo jëm ah bu nit faatoo daal te amuñ benn ngant nañ ko teel a suul rek ay mbokkam nañ ko gën a jegeñ bilaal nag ba mu demee ba amul nu mu jegeñee yonante bi mu feesal satalan daal di ko sotti ci ko bàmmeel yonante bi ñu ne ko lii nag ah, mu ne comme yonante bi fi ma tolloog moom aw ma koo jegeñ ma sotti ndox mi ni ndox mi seddee yàlla na léppam seddee noonu la li mooy lii mooy loolu de ba léegi ni ñaa ngi koy def xamuñu lan la bu dee ci gànnaar la nag ñoom ñu ngi koy def ngir seen suuf dafa doon saleñ ngelaw daf koy yóbbu te boo ci sottee ndox dafay mel ni dàkkaande dafay jàppante bàmmeel ba bañ ngelaw li ëpp yóbbu ko kon lii dong la kon yàlla na yàlla dimbale njaara bi wala xal ci dëgg-dëgg dey araynaahu won nañu muusa won nañu firawna aayaatinaa suñu aaya yi kullahaa lépp waaye fa kazaba mu fenloo wa abaa mu lànk rek xaala ci la waxe moom firawna aji itanaa ndax dag ñu dikkee yow muusa li tuxrijanaa ngir nga génnee ñu min ardinaa suñu suuf si bi sixrika ci sa njaber yaa muusa ñoom dañoo foogoon muusa dafay njaber ndax ñoom ay njaberkat lañu woon dañ joon jël nen daal di génne ndox ma ca biir dugal ci ay melentaan xorondom bu ñu tegee nen googale melentaan yaa ngi ci biir bugg a dox te nen dafa nen dafa tàcc nen nga du mën a taxaw muy bërëngu ñu ne gis nga nen bi maa ngi bërëngu fekk ay melentaan ñoo nekk ci biir wala ñu jël lu ñu lu ñu tuddee kiir arab di ko tuddee ziibaq xam nga mercure bu tàngooree moom dafay ko bu seddee dafay wàcc ñu jël ko dugal ko ci ay gamb bu tàngee rek nga gis mu daal di tàmbalee fudd seen gamb yi di yëngu nga foog ne kii gamb yee yëngu ndeke mercure la ñu def ci biir ñu foog ne Moussa tamit tappal yi lay def moo tax ñu ne ko yow Moussa bu fekkee da ngay andi ay ay ay xërëm daañ la andil xërëm yi ëpp sa xërëm yi ah fala naatiyal naka dinañ la dikkee bi sihirin ci njabar misli gu mel ni lii fajal nanga def bay na naa suñu diggante waa bay naka ak sa diggante maw idan aw dikk laa nuxlifu duñ ko wuute nax na ñun wala ante déet yow makaanan muy bërëb boo xam ne suwaa ñëpp a ay bokk yem de kenn du fàddu ñëppay teew Muusaa ne leen bàyyi leen ba seen bésu feet seen bésu feet ba nga xam ne góor jigéen mag ak ndaw ñi nekk ci dëkk taax yi ak ñi nekk ci kaw ga ñëpp dañ koy teewee bu ko ragee na ngeen def li ngeen di def ah bi loolu amee xaala ci la Muusaa waxee maw idukum seen dig ba day yow ma mooy keroog bés bi nga xam ne ziinati mooy keroog seen bésu taar ba wa yu yushara ba pëngeef ba ba dajalewee ba dajaloo an naa su nit ña duhan ci jamono yoor yoor ba loolu amee na firaw na ci la dajalee mboolem ñengokat yi mboolem luxuskat yi la leen dajalee fatawal la mu ne waxeet firaw na moom firaw na fa jamaa mu dajale kay ay pexeem su maata toog mu dikk xaala ci la waxee lahum ñeen leen Muusa way lakum tos ko ñeel na leen laa taftaru bu leen sos waaw ah, bu leen duur bu leen kàcc ala laa ci yàlla kasiban ay fen boo ko defee fa yusxitakum dana leen raatale dana leen moñoxe bi azabi bi azabin ci mbugal waxat ci dëgg-dëgg xaaba perte na xaaba sooy na man koo xam ne iftara dafay sos dafay duur dafay kàcc ci yàlla ba ñu dikkee nag fatanaasawu la ñu xacca la ñu seen mbir baynoom seen diggante wa asaru ñu ngay yël an najwa déyante ñu ngay déyante waaw Moussa ndax ànd nag mbooloo ñu ne ko deen Moussa ak magam dong ñoo ànd te mooy Haaruna ñoom ñu ngi àndi ay wëliis yu fees ak ay pertaaw ay yat yoo xam ne ñu ngi ca takk eh, waaw ñu ngi ca takk ay fas ay teepooy du xam ngeen teepooy ah mooy mbaxana boobu mel ni mbaxana njulli ñu def ci kawaru xar ci digg bi daal di taf benn seetu bu ron ci ndeyjoor benn seetu bu ron ci càmmoñ du ngeen di gis mbër yi di ko def hmm? mooy teepooy jël ay jàjjiri jàjjiri mooy yooyu ñu takk seen tànk yi yore ay sengoor daal di andi ay laar àndi ay pelem sex yàbbi xam ngeen pelem sex yàbbi ah, mooy dañuy jël ay bant ay galan yu tuuti yu mel nii da daal di ko takkee ay poqe ah néew na tey nga gis koo xam ne jëlul bu dijj def ci ndiggam wala ci baata néew na yu lépp ñu ànd ko yulli seeni saak bañ ko yullee ñu ngay yéegante ñu ngay yéegante boo ko gisee da ngay ne daal lii tey jii Moussa du taxaw ci kanamu lii ba ko Moussa xoolee ba xool ko yàlla ne ko yow Moussa bul tiit xaalu caloñ ne inna haasa naka ñaar ñi te mooy Moussa ak Haaruna la saahiraani ñaari waaye njabar lañu yuri daane dañoo namm ñoom ñaar an yu xir jaakum ñu génnee leen min ardikum seen suuf si bi sihirima seen njabar ñoom ñaar <clears throat> hmm? wa yazhabaa ñu demee ñoom ñaar bi tariqatikum seen sen yon al musla bi nga xam ne moo al musla bi nga xam ne moo al musla bi nga misalam ne misaalam moo gën a ci fa ajmi'u na ngeen dajale kaydakum seen pexe ya summatu topp ngeen dikk safan ngeen def ay sappe-sappe borom béjjën yaa ngi sappe nii borom petaaw yaa ngi sappe nii borom pelem sex yàbb yi nii borom sengor yi nii borom lañu andi na waxal dëgg-dëgg aflaha waaw mucc na al yawma bésu tey gii man koo xam ne italaa moo jël ngañaay bi italaa koo xam ne moo sut koo xam ne moom moo jël moom moo jël victoire tey ku jël victoire bi tey yaay jël honneur bi yaay jël gloire bi yaay tiim tey xaalu ca la ñu waxe yaa Muusa yow Muusa imma benn antul xiya nga njëkk a sànni wa imma wala boog benn an na ku ñu nekk ak wala njëlbeenu man koo xam ne alxaam mooy sànni yatam mooy sànni ay mbiram mooy na yalax xaala ci la Muusaa waxee ne bal li fi nekk alxaw sànni leen ba ñu sànne fa isa ci saasi fa isa amtit xibaaluhum seen seen seen seen buum ya wa isiyum ak seen yat ya boo ko xoolee yu xayalu dafay janeer dafay janeer ilayhi jëm ca moom min sihrihim seen njaber gu jégg dayooga annaha naka seen seen béjjéen yooyu tas a dafay dox ba Muusaa gisee loolu fa aw jasa ci la na yëmm fa aw jasa ci la na sëmm sëggal boppam mu daal di yer gent fa aw jasa ci la yer gentee mooy baati olof bi fa aw jasa ci la na sëmm fii nafsi ci jëmmam ji xiifatan ngir nga ragal Muusaa loolu am na xul naa ci la nañ laa taxaf bul ragal innaka naka yow day antal aala tey day yaay dàq yaay jël ndam bi yaay sut yaay kawe ah wa alqi sànnil Ma la nga xam ne fii yaminika mi ngi sa ndeyjoor talxaf dana fërëx fërëxi dana furok, talxaf dana dana waraax ah ma sana u lépp daf def dana ko def benn tibb innama déet sana u ñuy ludul lu dul kaydu saahirin waaw pexem pexem e, ñangokat innama nag xarafu xasru la hm? lañ koy teqantale ca tor lay nekk xel a koy dikkee kon da nga ne innama sana u déet seen lañu déet la ñu defar lu dul kay du saahirin pexek njaber la dong yem ci wala yuflihu du mucc nag a saahiru njaberkat xay su ata fu mu fi teewee rek a ba Muusa sànne yatam ba yat baa ngi lekk seen petaaw ya mi ngay wonnu seen yat ya mi ngay wonnu seen buum ya ah seen seen seen kii yooyu la seen pas ya lépp wonn na ko ba mu jeex tàkk a ba loolu amee ki nga xam ne mooy seen kilifa ci njaber moom dafa gumba woon mu daal di ne xale bi mu àndal ki koy ommat mu ne ko lu xew mu ne ko hee góor gi la ñu andi woon yépp yatam sopp lekku na jaan lekk na lépp mu ne ko seetal ma Moussa ndax dafa kontaan wala dafa tiit mu ne ko Moussa kontaan wala dafa tiit mu ne ko kon lii mu def du moom yàlla la bu doon moom moo ko def xam na li mu def du ko jaaxal def cee kontaan waaye lii moom xamu ko kon keneen na ko def kon li muy woote ne yonant la man gëm naa ko ci la firaw ne meree ci la daggee seeni loxo ndeyjoor seen tànk càmmoñ jël buum def ko ci baati ñenn daal di ko acc karab ba mu dee waaye nit ki bu xasee gëm boo doon sotti diw ci kanam it waaw du tax mu gannaaw mu na yàlla may ngëm yàlla ya rabbi moo tax fa ulqiya daal di sànnandi ko weef a saharatu njaberkat ya sujjadan ñu ñu ne ñu ne nugum sujadan ñu ne nugum xaalu ca lañ ne aman naa ñun day gëm nañu bi rabbi haaruna waaw ci yàlla mi yebal wa xaala ci la firawna waxee amantum da ngeen di gëm lahu ñeel ko xabla jëkkat an aadana may joxe ndigal waaw jëkkat may yëglu lakum ñeel leen innahu naka kooku njëkk a sujud la kabirukum mooy ka gën a mag ci ñoom mooy ki leen doon jàngal allazi mooy ka nga xam ne allamahu moo leen allamakumu moo leen jàngal asihra njabar firawna daal di mer ne falaw xatti ana dinaa dog ak dog ay diyakum seen loxo wa arjulakum ak seen tànk min xilaafin ci wuutal wala usallibanakum naa leen pendre danaa leen yarga danaa def buum seen baat aj ko fi jusuy nax li ci dàtt tàndarma yi wala te ala mun a dangeen xam ak xam ayuna ana kan ci ñun ashaddu moo gën a tar azaban ci mbugal wa abqa ana kan gën a des ah, ah wax na loola waaye taxul gaañ a tiit taxul gaañ a jàq de <clears throat> xaalu ca la ñu waxee lan siraka duñ la jeexital mukk duñ la tànn mukk yow na waaw duñ la ëffal mukk ala maa jaa naa ci kaw li ñu dikkee minal baynaat ci ci yu biir wallazi ka nga xam ne fatara naa moo ñu bind ñun moom la ñu tànn di yàlla faq di na nga wéyal maa antal la nga xam ne yow xaadin aji wéyal nga ko li ngay def def ko ñun faale wuñ ci dara innama tax di déet ngay wéyal déet ngay atte xaas yi lu dul alxayaati dunya dundu àddina la métitu àddina dina jeex te métitu àllaaxira du jeex ñun tànn nañ métitu àddina ngir ñu mucc yowmal qiyaamati ah innaa naka ñun de aman naa gëm nañ bi rabbi naa suñu boroom li yaxfir la naa ngir mu jéggal ñu xataaya naa suñu njuumte wama ak la nga xam ne ak raxta naa yaa ñuy forcé te bëgguñ ko yaa ngi ñuy forcé yaa ngi ñuy sóob ale ca loolu la mina sihri ci njabar wallaahu yàlla day xayrun yiw ci moom la nekk te wa abqa yàlla mbiram mooy mujj ba faw du jeex maa indakum yan faddu wa maa inda allaahi baaxin ah innahu luy mbir tey mbir man jaa man at yi képp koo xam ne dana mu dikk képp ko xam ne dana mu dikkee raboo boromam mujriman fekk bandi la mujriman fekk kamasa la mujriman fekk bàkkaataakoon la képp ku dikkee yàlla fekk yaa ngi nekk kamasa fa inna aj sax la lahu ñeel kooku la jahannamu safara te laa yamuutu du dee fiyaa ci safara soosale waaw ngir dee benn la te def na ko wala yaxyaa du dund ngir bànneex amatul foofale wa man yaati képp ku dikkee yàlla mu'minan di aji gëm xat ca dëgg-dëgg fekk ame la jëf naa saalal jëf ju baax fa ulaayika ñu dey lahum la leen ñeel darajaatul ula daraja yi nga xam ne ñoo gën a kawe hmm? xat nag ñeent la xat ñeent la xat li taxqiiq xat li taqrib xat li taksiir xat li taqliil am na xat koo xam ne dafa dëggal si naka xat aflahal muminuun julli di dëgg-dëgg mucc nañ ko ko xat boobu dafa dikk ngir taxqiiq dëgëral mbir mi am na xat bu dikk ngir wone ne mbir mi daanaka jegeñ na dafa sës rëkk mooy boo ne xat xaamati salaatu xat boobale mooy sës na rëkk julli gi boo ne xat ya juudul bari na ku tedd bu tabee boo ne xat ya juudul bariilu bari na ku nay bu tabee déedéet da nga ne néew na ku nay bu tabee kon xat yaa ngi noon ngeen jàpp ko xat bii day dafa dikk dikk di dëgëral ëllëg booba lay jannaatu adnin yàlla mi ngi leen dencal aljana goo xam ne aljana gu duunuun la aljana boo ci duggee doo feebar doo màgget doo ragg doo yooy amul xuloo amul xeex amul dogo amul ŋaayoo amul guddi amul bëccëg amul noor amul cooroon amul lolli noo bëgg rek noonu la yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi jannaatu adnin aljana guddu noonu aljana gone tajri dana daw min taxtiyaa ci ronam al anhaaru mboolem ay xeetu walangaan waaw déegu sàngara déegu meew déegu soow déegu ndox déegu ah lépp loo xam ne lu nit di naan la ci këru àddina gi fekk yàlla defar na ko ah naanu at allaaxira doo ci def fleuve d'orange fleur d'orange yàlla moo ko ci def doo ci def muscade doo ci def muskàdd yàlla moo ko ci def lépp loo xam ne lu ñu war a def la ci lu ñuy naan doo ko ci def yàlla moo ko defee noonu la xaalidina ñuy waay béyal fiyaa ci aljana wa zalika dee dugg aljana daal jazaaw mooy fayu man képp koo xam ne ah tazaka sellal na yàlla nañ sellal boog yaa bi wala xat ci dëgg-dëgg aw xëy naa juux nañu ilaa Muusa ne ko yow Muusa Firawna day ah, du dégg anisri na nga rañaan rañaan mooy doxi guddi bu dee bëccëg la taañaan la ko wolof di wax doxi guddi mooy rañaan waaye doxi bëccëg ñu ngi ko tuddee taañaan wala doxi yeneen jamono ñu ngi ko dafa yuq ah yàlla ne Moussa na nga rañaan ana siri na ay na rañaan bi bi ibaadi ànd ak samay jaam wadrib na nga sadd lahum ñeel leen tariqan yoon fil bahri ci géej yabasan dana wow kong ndeysaan firawna Moussa xëy daal di ànd ak mboolem xeetu Israil muusa dowul égyptien dafa judd rek juddu jéeri la du xam ngeen juddu jéeri ah mi ngi mel ni bambara bu juddoo fii juddu jéeri la wala pël boo xam ne mi ngi juddu dakaar juddu jéeri la wala séeréer bu juddoo Mali juddu jéeri la na moom euh, muusa moom juddu jéeri la ay maamam ñoo gàddaayoon ñëw Égypte abe moom mu juddu ca Firawna sonnal leen tey nag mi ngi dellu ci réew ba nga xam ne fekk fekk na fa baax dañu ñu dawee ba yegg ci géej gi ah bani israel daal di jooy ne ey yow Muusa cànkute dikk na géej suñu kanam firaw na suñu gannaaw ana fan la ñu jëm yàlla na ko Muusa sa yat bi dóor ko ci géej gi ba mu ko dóoree mu doon fukki yoon ak ñaar ñi nekk ci yoon bi duñu gis ñii ñi nekk ci yoon bi duñu gis ñële ndax du si géej moo nekk seen diggante ñu daal di jàll ah Mikaayil nekk firaw firaw na ba mu ñëwee ci géej gi ah bugg a dugg taxawaat xaamaan ne ko duggal mu ne ko dëgg-dëgg li may yàgg ci jamono yépp mbedd ci biir géej loolu moom gisaguma ko lii leneen la gis nga delloo si na xelam moo te lu nit woote rek jaaxle moo dikkagul waaye jaaxle bu dikkee rek nit dellu ca lu nitam nga rek waaye jibril daal di jaar ci kanamam nee nañu xeeti wajan daal di xeeñ fasu firaw na mu daal di xacc ay ngalaabam rek daal di ko rëcc ah amatu ci pexe mu topp leen ay nitam topp leen jibril daal di génn fële ah xam naa keroog la téléphone sans fil feeñee mikaayil nekk fii jibril nekk fële naan ko ndax gaa yi dugg nañu mu ne waa gaa yaa ngi dugg ndax bani israel Moussa génn na waa Moussa génn na ñii ñëpp dugg nañu mun a des na tuuti xaaral tuuti ñëpp dugg nañu mu a dugg na mu ne Moussa jëlal sa yat bi nga dóor géej gi ba Moussa jëlee yat bi dóor géej gi rek ah ci la yëpp dajaloo ci la Firawna deeyee bu njëkk ku dee ci géej dootoo génn day mel ni pusu bu daanu ci biir teen jeex na waaye yàlla xam ne bu bàyyee noonu comme firaw na dafa ne woon yàlla la kon dañuy ne moom toxu na ci addinaam bi dem na ci beneen addina moo tax yàlla ne ko al yawma nunajjika bi badanika li takuna li man xalfaka aaya yow firaw na doo nëb doo yàqu dañ lay bàyyi nga wow naka mbott bu dee ni muy woowee bu ëllëgee lu addina yàgg-yàgg ñu lay gis xam ne li xewoon démb lu am la woon ba léegi boo demee Égypte da kon dégg nañ ko ah yàlla na fadrib na nga dóor lahum ñeel leen tariqan yoon fil bahri ci géej gi yabasa muy aji wow laa taxaf bul ragal darakan ku la dab gendarme yi policier yi bu ragal wala taxsha bul am tiituwaay na nga dellu ci yàlla fa at la leen toppee firaw na moom na bi junu di ànd ak lëlam nga waaye day faxas yow muur na minal yam ca ñukk ga géej ga ma ci alam ga nga xamee ne xasiyahum la leen muri ci coobeeru yàlla wa adalla sànq na fir'auna na ay nitam wa ma hada te jubul moom jubul jubantul jubbantiwul te jubawul yàlla ne ya bani israila lii yëpp jaar naa ak yéen ah xat an musal nañ min aduwikum sen noon nga te mooy firaw na waa naa ko ñu dig ca al ay mani ba fare ndey te mooy jabalu Muusa yàlla woo Muusa wax ak moom yàlla yemul foofu bañ nekk ci àll ga dafa leen doon wàcceel ay lekk nàkk goo xam ne ah nàkk goo xam ne sungu fi tàndarma bu ñu mooñee lem la mbokk yi lii neex na de di leen wàcceel ay kelew kelew moo gën a rëy cokkeer te yeggul ci ganaar mu leen koy toggal di jóge asamaan di ñëw wa wa nazal naa wàccee nañu benn par benn aleykum ci yéen alman suuñ wa ak kelew kulu lekk leen min tayibaati ci waay teey maa razaqnaakum lañ leen wërsëgal wala talraw bu leen bu leen bew fii ca loola le faye xilla bu ko defee dana cippeelu aleykum seen kaw xadab yi sama mer wa man képp koo na yaxlil dana wàcc képp koo na dana cippeelu aley ca moom xadab yi sama mer faqat ci dëgg-dëgg xawa kooku xaweeku na te ku xaweeku dootoo baax leeti wa ini naka man yàlla la xafaarun mooy man may dappati waa koon ci jéggal boo tooñee ma jéggal la danaa téye ne da tooñaat te boo tooñaate ma jéggal la xafaar li man ñeel ko ne taaba tuub na wa amala ta mu gëm wa amala ta mu jëf saalihan lu baax su maxta daa topp mu jub te jublu tey juble tey jubbanti ah Muusa nag ba ñu jéggee géej ga mu daal di dem ci doj ya fekk wooteeg yàlla ñëwagul yàlla ne ko maa aajalaka ana lan moo la yàkkamti ba nga dikk an xaw mi ko wali say nit yaa ko yaa Muusa yow Muusa xaala mu ne ñoom day ñoo ma topp rek ki ñu defal teraanga bi di yàlla dellul nga ne ko jaa jëf ngir mu yokkal ñu xaala mu ne hum ñoom day ulaa i ñii ala asra ñu ngi sama jeexitat ñu ngi ni sama gannaaw wa ajiltu man moo tax ma yàkkamti ilayka jëm ci yow yàlla rabbi sama borom li tardaa ngir nga gërëm suñuy jëf ndeke balaa Moussa di ñëw am na keneen Moussa bu fa nekkoon mooy Moussa Samariyu ba Moussa demee xam nga ñaari Moussa moo am Moussa kooku firawna moo ko yar mu nekk yonant Moussa Samiri nee nañ Jibril moo ko yar mu nekk yéeféer ndeke ku naroon a bon boo ko dugaloon ci biir kaaba gi dafay bon rek waaye ku naroon a baax boo ko dëkkalee ci biir bisoram bi dafay baax rek yal yàlla boole ci ñuy baax yaa bi ba lii amee ndeke moom yaayam daf ko jur fekk du doomu yoon ñu mu sànni ko yàlla na Jibril xale bi na ko toppatoo am na luy dikk ci kanam ci moom lay jaaree ndeka jibril bu ñëwee bu tegee tànkam ci suuf rek foofu dafay daal di dund bu dee suuf su wow la ñax bu tooy feeñ ndeke moom jël na ca denc kere ba Muusaa demee di wuyu ji yàlla ngir mu àndil mbootaayu Israël li leen yàlla digal ak li mu leen tere mu daal di dajale seen alal yeeg wurus yeeg xaalis yeeg libidoor yi daal di ko tëgg mu doon estati mel ni aw sellab nag suuf soosale mu daal di ko jël def ko ci nag boobu rek mu tàmbali di nàññ tàmbali di yëngu mu ne Musa leen Moussa yàlla gi mu seeti yoon ñëw na gannaawam gis nga ni mu yàqee moo tax yàqkat benn sànkar la bu duggee ci pañ rek dana yàq lépp yàlla na yàlla musal ci yàqkat yi yàlla loolu lay nettali fii ah <coughs> xaala ci la yàlla waxee fa innaa naka ñun dey xat ci dëgg-dëgg fàttal naa la jël nañu xaw ma ka nit min baa dëkk gannaaw sax dikk waa delloom sànq na leen saamiri te mooy Moussa saamiri farajaa ci la delloo Moussa ilaa jëm ci ay nitam xadbaana muy aji mer asifan muy aji nakarlu waaw ah xaala ci la waxee yaa qawm yéen samay nit alam ya itkum ndax diggu leen rabbukum seen boroom wa alan dig goo xam ne xasanan diggu rafet la afataala ndax dafa yàgg ci al ahdu dig boobale am wala aratum da ngeen an yahil bay ci péelu aleykum seen kaw xadabun mer min rabu bawoo seen boroom fa axlaftum ba ngeen wuut ba ngeen wuutanteg wa adis maw idi sama dig ba xaalu ca lañ tontee Moussa ne ñun dey maa axlaf naa wuute wuñu maw idaka ak sa dig ba nga ñu digoon eh, bi milki naa suñu coobere bopp de walaakin naa waaye naka ñun humil naa eh, sefoon nañu sefe woon nañu yenn woon nañu awzaaran ah eh, ay gànjar awzaaran ay diis diis awzaaran ay jumtukaay ay alal ah min zinatil qawmi jóge ci taar ci taartal waa Égypte seen long long ya dañ ca dañ ca jëloon seen caqa ya seen njara ya faka fakasaf naa ñu sànni ko ci biir safara si ba mu ruy a ah, ñu daal di ko tëgg muy lii fa kazalika naka noonu day alqaa la sànni a saamiri yu moom saamiri yu fa axraja mu génne lahum ñeleen ijlan aw estati boo xam ne mi ngi mel ni aw yëkk aw séll nag jasadan muy aw yaram waaye lahu ñeel na ko xuwaarun aw nàññ mi ngay nàññ di mbuuy naka ni nag di nàññ di mbuuy fa qaalu ca lañ waxee haazaa kii day ilaahakum mooy seen boroom wa ilaahu muusa te mooy boroomi muusa fa nasiya mu fàtte afalaa yaraw na ndax gisuñu moom nag boobu allah yarju mun te delloo ileem ca ñoom xawlan kàddu wala yamliku te du àttan du mun lahum ñeel leen daran jëñ lor wala du càggan nafan xacc njëriñ wala kat ci dëgg-dëgg day xaala waxoon na lahum ñeel leen haaruna min xablu balaa muusa di ñëw yaa qawmi en yéen samay nit innama déet futintum bu dul lëjal na leen bii ci lii muy def de way na rabakum seen boroom arrahmaanu mooy ab delsee ili naa ci ñun Muusaa xaala ci la waxee ba Muusaa dikkee ci la ne yaa Haaruna ey yow sama mbokk bi di Haaruna ñoom ba ñuy def lu bon lu tax nga tere lu tee nga tere leen maa manaaka lut bu la la tere isra ay tam ba nga leen gisee dallu ñu sànk alaa tattabee ni munoo ma woon topp fekk si ma yëgal ma afa aseta ndax da nga mooy amri sama mbir ah? gis nga de li muy wax si xam nga yërmande ci wàllu ndey la ëpp ci wàll baay néegu ndey ca néeg ba waaye gaño baay ca pénc ba boo fekkee def nga dara fekk du lu jaadu say doomi ndey buñ lay yedd ci néeg bi lañ lay yóbbu duñu bëgg kenn yëg ko waaye boo defee dara lu jaaduwul sa doomi baay sa sa gaño baay buñ lay yedd ci pénc ba la dem moo tax yërmaande bi nekk ci meenu ndey nekkul ci gaño baay moo tax moom Haaruna ba mu demee ba jàq mook Moussa ñoo bokk ndey ak baay waaye def ko ne ey yow sama doomi ndey ngir mu yërëm ko ah, kon nañu toppatoo mbokk bu baax a baax ah xaala ci la waxee yab na uma ey yow sama doomi ndey laa taarus bu téye bi lixiiti sama sikkim wala biir du caagan sama bopp gi de sikkim la wax ne mbokk yi won si wot sikkim daganul de wot sikkim daganul ak ku koy def nag bu yeboo nga jeexal téere àddina yëpp yonante yi mosu ñoo wot seen sikkim saxaaba yi mosu ñoo wot seen sikkim waliwu yàlla yi koo ci gis sikkimam mi ngi tegu ci biti sunna la ci yonante yi waaye daal di ko dindi mel ni aw jongoma lislaam dafa tere loola la mbiru nasaraan la ah? am na ñoo xam ne ñu xëy ñàkk benn dogati mburu moo leen dàqal ñu xëy te amuñu lancé bu ñu xuus xuusee ah mu ngi nii nee na ko buy tey sama sikkim wala du caagan bi biraasi sama bopp inni naka man day xasitu ragal naa an taqula ngay naan faraxta teqale nga bay bani israila diganti giitab israil walam tarqof te fuglu kauli sama kàddu xaala ci la muusa waxee yab na fa fama xat buk buka ana lan mooy sa mbir ya hmm? hmm? fa maa xalbuka ana lan mooy sa mbir ana luy sa solo ana luy sa wundu yaa Muusa yaa Samiri xaala mu ne déet man de basurtu dama dama gis bi ma loo xam ne lam yëpp su gisuñu bii ca loolale te mooy fu jibril teggoon tànkam dafay dund fa xabartu ma ngëb xabdatan aw ngëbiin min asari rasuli ci jeextalu yonent boobale te muy ndaw yàlla ga fa nabastuwaa ma giqi ko ci biir lii mu tàmbale di yëngu wa sawalal jekk jekkal na lii ñeel ma nafsi sama bakkan kazalika naka ni ma defee loolu xaala ci la waxe ko fasab demal fa inna aji sax la laka la fil hayati dun fil hayati ci dund àddina gi antaku la nga wéy ci sa dund do tekki doo jëriñ laa misaasa da nga dem ba laalante doo ko am ci jëmm yi kenn la la salloo kenn la nawlewoo fekki mu la fekk si laa misaasa déet jonjoo déet déet jëriñante déet sukkalante da nga dem be doon yow kot wa inna aji sax la laka ñel la maw doon bërëb euh, euh, aw dig lan tux la ko doo ko wutu fanzu sa gi allazi yàlla ba nga xam zalta yendu nga alayhi akifan di aji daka lano nu la nu xariqan na danañ ko lakk hmm? <coughs> danañu lakk yàlla bi nga yore waaw waaw su ma topp la lan si fan nahu danañ ko jenj danañ ko tasaare fil yàmme ci ñukk gi nasafan aw jenj innama ilahakum déet seen boroom bu dul allahu yàlla allazi yàlla ba nga xam ne laa ilaha illa laa nekkul laa musa nekk te du nekk mukk ilaha boroom boo xam ne boo ko jaamoo nga am njëriñ boo ko jaamul nga am lor illa bu dul moom yàlla wasiya ëpp na wasiya sut na kulla shay'in lépp lenn elman ci xam-xam rek waaw na ko suñu ngay jàngal aleyka ci yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> kazalika naka ni noonu lu xewee woon lii lépp min an bàyyi ci ay solo la maa solo yoo xam ne xat sabaqa jiitu na wala xat ci waxat ci dëgg-dëgg atay naa kat dikkee nañ la min la dun naa bawoo ci ñun zikran aw tudd zikran alquran zikran aw téere boo xam ne dafay yóbbu nit ci yàlla di la soril seytaane fa man koo xam ne aara la du mooyu na an walis téere bii fa inna naka moom yax day yaxmelu dana yenu yowmal qiyaamati visran bàkkaat yu diis gann yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi dina ñuy waay béel ñuy waay béel fii ca safara soosale wasaa ak ñaaw na wasaa a bon na lahum ñeel leen xim nañ ci aw yen yowmal qiyaamati bésu penc googale ah man bés a ngi dikk bés boo xam ne yun faxu dees na ëf fi suuri ci biir ngalliir ga ngalliir mooy loolu mel ni béjjéen malayka boobu ñu tuddee azrafil waaw bés a ngi ñëw dana ko ëf bu ko ëfee suuf si yëpp dafay mel ni benn jànj waaw waaw dafay maase rek bu kerogee war nax suur danañu pëng danañu dajale al mujrimiin ne yi yow ma seen keroog ñoom ñëpp waaw zurqan yal nañ ci yàlla musal wallaahi boo leen gisee ñu ngi woos ñu ngi ras ñu ngi kotom yataxaafatu na ñuy koyti koyti du xam ngeen koyti koyti ñuy koyti koyti bay nam seen diggante waaw ah, kenn ku nekk mi ngi jëm ci ki mu yaakaar kooku mu ngi koy daw ñu naan in labistum yéen de saxu leen ci àddina illa ashran bu fukki jamono yooyu rek nga judd nga feral nañu la dugal nañ la néegu góor song nga ngoro am nga doom lii lépp ci benn siècle ga lay xew hmm? ndax nu ñun aalamu ñooy waaye ñooy aji xam bul ne aalamu moo gën a xam yàlla amul afala tafdil da ngeen aalamu daw raw bi maa yaquluun ca la ñuy wax is fàttalekul yaqulu bay wax am salum ñen niroog ñoom tariqan ci jaaruwaay nee na iñ labistum saxu leen ci àddina gi illaa yowman bu dul benn bés rek wa yasalu naka ñu ngi lay laaj anil jibaali ci doj yi bu àddina jeexee nan la doj di def ah yàlla nee ni ni ngeen di jëree gerte ah? ni nga jëlee gerte di ko bees di ko jëri noonu la yàlla di jëree doj yi ñoom ñëpp ñu daal di dem wees alu na ko ñu ngi lay laaj anil jibaali ci doj yi fa qul nel yan sifuha dana ko jenj rab rabbi sama borom nasfan aw jenj de fa yazara mu bàyyi fa mu nekkoon xaa an muy aw xóot xóot saf safan boo xam ne gu wululu la dafa xóot bay wulu wulu ji saf safan goo xam dafa wulu wulu di wàcc ci ron a ron laa doo gis fii haaj ci àddina gi bu kerogee i wajan fu lunku wala am tan du caagan fu ah, fu fu eh, foo xam ne dafa janju wala foo xam ne dafa woggu yëkkati ko ca kaw wala foo xam ne dafa jungaamu doo gis foo xam ne i wajan dafa jeng wala lunku wala am tan doo gis fu jungaamu yow ma isin keroog nag yatta bi une danañu topp addaa iya aji woote ga te mooy yàlla dina digal malayka ne wool sama jaami bu kerogee laa i waja déet jeng lahum lahu di ko ñeel dana ñëw de wa dana ragal wa xasiyat dana wàcc dana ragal ba wàcc al aswaatu baadi kenn du ñemee wax ci kaw li rahmaan yàlla rek fala tasmaw doo dégg kero illaa hamzan bu dul aw hum humi dënn yaa ngi hum hum rek yow ma zin keroog laatan faw du jëriñ a shafaatu ak ramm ah kenn du ramm keroog de ahan kay danañu ramm de ñaari wax yi mooy lan yow jaamoo yàlla toppoo ndigal bàyyi bayi tere nga ne yow da nga dugg aljana yàlla du jëmm jooju mukk déedéet yaa ngi naan yaa fen yaa ngi sàcc yaa ne daañ ma wallahi duñ la ramm mukk ñañuy ramm kay mooy ñi nga ah defoon nañu jamono daal leen dugal ci ay mbir ñu dugg ci ay mbir waaye ramm moom danañ am waaye nañ ko foogee du noonu rek ñoo rek yàlla ubbil bunt yi ma duggal leen ah déedéet إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كون دغ نانكو خادم الرسول يالنا يالا تاس سي بركم دي مولانا شيخ احمد بامبا نينا سيدنا عثمان موم كين دنا رام جوم نياف فك جوني نيت ньо خامني سفر مو يالون سي نيوم وفيه قال النبي عثمان يشفع في سبعين ألفاً wa kullun xaquhu naaru nee na yonent yàlla muhammad nee na kero bi usmaan defee teraangam bu mag boobale sëñ tubaa mi ngi nettali ca raaya ba nee na wa bihi qaala ci solo soosu la waxee annabi te mooy yonent bi ne usmaan seydina usmaan yashfau dana donn ki yashfau dana ramm sabaina alfan juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kullun kenn ku mu doon ci ñoom xaquhu cëram naarun moo doon safara <clears throat> am na koo xam ne mënut a ràmmu boppam sax am na koo xam ne boppam rek la mun a tinu am na koo xam ne dana ràmmu ñaar am na koy ràmmu ñett am na koy ràmmu junni am na koy ràmmu ah eh. na yàlla boole ñu ci ñuy ràmmu yaa bi kon mbir maa ngi noonu la laatan faw du jëriñ ashafaatu ak ràmmu illaa ndare man koo xam ne asina digal na lahu ñel ko rahmaan aji yëram ba war a dee te gërëm lahu ñel ko xawlan ci kàddu yàlla xamoon na dana wéy di xam yàlla ma dana xam maa bay na aydihim la nekk seen diggante ndend yi li leen jiitu yàlla xam na ko <clears throat> wa maa xalfakum ak li ci seen gannaaw wala yuhitu na te duñu peek duñu wër ndombo bii ci yàlla elman benn xam waa ana daal di daal dina yàcc keroog ah daal di njata malu alwuju kanam yi keroog lil hay yi ñeel aji dund ga nga xam ne ci lu mu dugg mu dund ci lu mu génn mu nekk aw médd rek te mooy yàlla alqayum yàlla mi féete boppam ci lépp kenn féetewu ko ci dara <clears throat> waxat ci dëgg-dëgg day xaaba sooy na sooy na man koo xam ne xamala yàlla na zulman tooñ wa man yaamal képp ku jëf mina saalihaati ci yu baax képp ku jëf lu baax te woo moom muminun aji gëm la falaa yaxaafu déel muy ragal zulman ak tooñ wala du jaagan xat man ñu ŋàmp ko comme ni ngay ŋàmpee màngo mu wàññeeku yàlla ne na sa jëf ju baax man yàlla duma ci ŋàmp dara hmm? wa kazalika mbir maa noonu rekk la anzal naa wàcce nañu téere bi quraanan muy alquran bët daf koy gis loxo di ko laal làmmiñ di ko jàng nopp di ko dégg arabiyan muy làkk yaaram làkk yépp arab moo ci gën a rafet làkk yépp arab moo ci gën a neex booy làkk arab boo nekkul kilifa it da niroog kilifa ngir li ngay wax ni muy génnee day mel ni booy làkk français même boo tiitaruwul day mel ni da ngay tiitaru ah, doo koy gis dangay ngay ko sa mbagg yi daan ebe alors foog nga <laughs> noonu la làkk ngone la france làkk xale la boo koy làkk foog ngay yëngal sa loos tuuti waaye gi nga anglais boo koy làkk boo doonoon kilifa yit day mel ni koo xam ne dafa jël high doos dangal naan lu bari ci <laughs> ah dafa mel ni ku mandi la xawaayu foog nga daal ko jàngal bu baax a baax mu mel ni ku màndi ñu soog ko mën a dégg gis nga làkk wolof boo koy làkk da mel ni ku muus même boo muusul booy làkk wolof day mel ni ko muus rek ah. waaye boo doon làkk bambara fii suñu làkk bi fii day mel na ñuy xeex naa dumu ni ke naa <laughs> ah, noonu rek la kon mbir maa ngi noonu la yàlla nee na quraanan téere bi tey di mooy alquran arabiyan ah làkk yaaram la waa saraf naa teqaltal nañu fii ci alquran minal waidi ci ay tëkkoog ay ay digle laallahum ngir ñoom yëpp tax na ñu mun a ragal yàlla aw yuhdis wala bay sos lahum ñee leen zikran ak fàttali ko ci yàlla oo ñu tudd borom bi fa taala allaahu yàlla jomb na lañ koy askanale almaliku fa taala kawe na allaahu yàlla te jombale jombale na boppam lañu koy taqal almaliku yàlla mooy buur ku falu mooy ki la fal ku folleeku mooy ki la wàccee alxaqu yàlla mooy ku dëggu yàlla mooy dëgg ci boppam kon xam leen dëgg mu xam leen dëgg dëgg xamal leen ay nitam wala taajal bul gaawantu bil quraan ci alquran gi min xabli jëkkat an yuqdaa waaw dees ko wéyal wax yuhu ak juuxam ko jëm ci yow muhammad dafa doon bugg alquran du bugg dara rëccu ko ca yàlla ne ko sa nuqu ko falaa tansa dañu saxal yépp sa dënn gi doo fàtte dara sallallahu alayhi wa ah wa qul fortoll na nga ne rabbi borom zidni dolli ma waay elman xam ndek xam-xam moom du jeex xam-xam amul koste loo rëy xam-xam am na ku la ëpp xam-xam bés dana dikk siis bi ma ah nit dana fi toog bu waxee rek da nga ne moo wàcce woon téere yàlla bi yàlla maa lay ñaan ko defal rabbi wala xat ci dëgg-dëgg day ahal ahit naa fasante woon nañu kóllëre ilaa aadama jëm ci aadama min xablu jëkkat fa nasiya mu fàtte mooy xalbu naasin waxoon naa leen xol yi ñeent lañu alaa bi zikrillahi tatmainul quluub xalbun xaasin xalbun naasin xalbun mustaaqun xalbun waxdaaniyun ah aadama nag dafa fàtte woon li ko yàlla waxoon bul laal lii falam najid fekkuñu lahu ñeel ko asman ak dogu wa fàttalekul is qul naa ba ñu waxee lil malaayikati ñeel malaayika yi usjudu sujud leen li aadama ñeel aadama fa sajadu ñoom ñëpp ñu sujud illaa iblisa aba lànk na hmm? fa qul naa ci la ñu waxee <clears throat> yaa muus yaa aadama yow aadama inna haza nak kii day te mooy iblis adumun noonu la laka ñeel la wali zawjik ak sa soxna si falaa yuxrijannakumaa bu mu leen génnee yéen ñaar minal janna ci aljana bu leen génnee fatashqaa yow yaay di de ndax dégg ngeen aaya bi nee na bu leen bu leen lekk yéen ñaar ci garab gi moytu leen yéen ñaar lu ko moy dana leen génnee yéen ñaar bu ngeen génnee yéen ñaar yaay sonn de ndeke góor moom mooy tabax kër mooy def ay néeg mooy leele mooy nàndal mooy wodd ndeke bu ko jigéen defee it lislaam tegu ko mbaaxam la nee na bu ngeen génnee fatashka yaay coono de yow aadama kon dégg nañ kàddu gi kon buñ ne nañu yemale ak wallahi duñu yembe yowmal qiyamati l'égalité entre l'homme et la femme c'est impossible du nekk mukk ba yowmal qiyamati hmm? loolu munta am ah innaka naka yow aljana inna la ka ñeel na la allah ta ju adoo xiif fii ci àddina fii ci aljana wala ta araa doo rafle wa an naka yow day boo nekkee aljana laa tas moo doo xiif du ki laa tas moo doo mar doo mar fii ci aljana wala tataa doo ceeñaatu ceeñaatu mooy lan naaj bi dafa tàng lool amoo ker ngay jaar ngay ceeñaatu ci sàkke aljana amul xiif laata ju aljana amul mar amul rafle amul naaj ba ngay ceeñaatu kon xam nga li ñuy naan communisme mënta am communisme du xam ngeen ko mooy politique bi ñëwoon ci union soviétique ana kan moo ko andi woon Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Lénine ana moo leen ci topp Staline ñoom Christophe Andropov Tchereninko Gorbatchev anamu du toj na képp kuy woote loo xam ne yàlla bokk ca yàlla dafay màbb loola le moo tax réewu riis yi màbb na tey ji te ñoo ëppoon doole ci àddina gi dañuy coow ne Amérique waaye riis moo leen ëppoon gànnaay lii ñuy wax kenn du xiif ah déedéet foog am ñu xiif waaye na ngeen góorgóorlu bu mu doon xiif bu jëm dayoo na ñuy nàddante lii day la yàlla waxoon aljana loolu aljana rek la am fa wasfara daal di jax jaxe ilay jëm ci aadama seytaanu xaala ci la waxee yaa aadama yow aadama xal addulluka ndax du la tegtal ala shajaratil xuldi ci garabu béel garab goo xam boo ko lekkee da ngay béel ba faw wa mulkin akam nguur nguur goo xam laa yab laa waaw déel muy fënax de te du ràpp mukk fa akalaa ñu lekk min haa ci garab googale ñoom ñaar fa bada daal di ne fàng lahuma leen ñoom ñaar saw aatuhuma seen seen awray subhanallah awra rafetul moo tax yàlla tudde ko saw ah seen yu ñaaw ba ñu lekkee garab garab seen seen malaan yëpp daal di naaw aadama na dung ci biti xawaa dund ci biti mënatu ñoo xoolante wa tafiqaa ñu daldi di soobu yax sifaani ñuy gàccoo min aliha alihima seen kaw ñaari awra ya min waratal jannat ci xobi aljana ya wa asa mooy na aadamu rabbahu boromam waa zahir noonu lañ koy tekkee ah, waaye waa baatin ndey nee nañu wa asaa jëfandikoo na ndigalu rabbu boromam aadama ndekk aljana kenn du fa jur te buñ nekkoon aljana kon jurante du am te bu jurante amul ngeen ci mbindeef yi di mu seydina muhammad du ñëw jamono hmm? am na benn nit yàlla bu ne bu doon moom la comme moom benn doom la lekk ñu wàcce ko àddina mu am ay doom ba Muhammad feeñ na bu doon moom la garab bi yëpp lay lekk benn yoon ah kooku dafa daanu woon nitu yàlla yi dañuy daanu nag na ngeen xam loolu la ah wa asaaneel jëfandikoo na aadamu rabbahu ndigalu boromam moo tax farawaa wàcc na suuf wala nga ne wa asaa mooy na aadamu rabbahu boromam farawaa ba mu ko defee rek la la dengar ñi ko su ma topp ijtabaahu daal di ko tànn rabbu boromam fa taaba mu nangul ko tuubam waxadaa mu jub ah, dégg nañ ko xaala ci la yàlla waxee ihbitaa wàcc leen yéen ñaar mi naa ci asamaan si jamian boole seen ci lañ wàccee xawaa jidda ñu wàccee aadama ca doj bu ñu tuddee Charnadib ci réew mu ñu tuddee saylaan ko tuddee Sri Lanka lenn ci yéen aduwun noonu lay doon li baadin wa imma benn yaatiyakum dana leen dikkee min ni ci man hudan njub fa man tabaa képp ku topp hudaay sama njub falaa yadillu del muy sànk wala yashqa del muy texe di wa man képp koo xam ne nag aarada du mooyu na an zikri bañ maa tudd man yàlla bañ maa jaamu fa inna aji saxla lawu ñeel ko maishatan dund koo xam ne dankan dafa ne coc dafa ne cocc coccooral dankan bu fënax ah, dankan goo xam ne dafa kuf ni cere di kufee dundam dafay kuf dafay ënn dankan dafay ënn yàlla nañ yàlla mosul ci dund gu ënn war nax suur danañ ko pëng yowmal xiyaamati bi su pénc a ama muy ko wax ne silmaxa la du gis ndeyjoor du gis càmmoñam benn ñu koy dugalee safara yàlla nañ ci yàlla musal xaala nga dégg mu naan rabbi sama boroom lii ma lu tax xasarte ni nga pëng ma a ama may silmaxa te waxat dëgg-dëgg kuntu nekkoon naa ci àddina ga basiran di aji gis xaala yàlla ne kazalika naka noonu atat kala la dikkee woon ayat naa suñuy aaya fa nasitaa nga fàtte ko de wa kazalika naka noonu al yawma bésu tey gi tun saa des na la fàtte yow ni dit waaw ah, wan nag ji danañu fay kazalika naka noonu man asrafa koo xam ne fu nekk mi ngi yàq rek wala mu yumin te du gëm bi ayaati ci ay aaya yi boromam wala azabul axirati mbugalu àllaaxira di ashadu moo gën a tar te waa xam mooy des ba faw <coughs> afalam ah, afalam yahdi ndax jaaduwul nag lahum ñeel leen yéen doomi aadama ngeen gëm yàlla kam bari na ñaata yoon alag naa bu ñu alagee xablahum balaa ñuy ñëw ñoom minal quruuni ci ay maas xawmu aadin xawmu samuud jadiis tusum ñi ñëpp yàlla alagoon na leen yam su na ñu ngi nii di dox fi masaakinim seen dëkkuwaay yi innaa ji nekk la fii zalika ci loolu la aayaatin ay aaya li ulin nuhaa ñeel waay ñëw ci xel yi cey walaw bu nekkul woon kalimatun baat baat koo xam ne sabakat xas na jiitu min rabbika sa boroom bu doon yàlla bu tuflee dootul maraat <clears throat> kon day lakkaana daal di nekk lisaaman du takkook ñoom waaye na yàlla mu ngi leen di xaar wa ajaloon ba ci ba nga xam ne musamma mooy dig ba ñu tudd rek fas béer na nga muñ alaamaa yaquluuna ci lépp lu ñuy wax rek <clears throat> wa sabbih na nga sabbaal bi hamdi rabbika di sant sa boroom qabla tuluy balaa jant bi di génn julli subaa ngoog wa qabla ghurubiha balaa jant bi di sow muy tàkkusaan jëm timis eh, wa min ana il layli ñaari tàppaatu guddi na nga joxe salaatul fajri sunnay seydina muhammad la waaye na nga joxe gee wa sabbih na nga yàlla wa atrafa nahaar fetu bëccëg muy tisbaar tàkkusaan bul ko faat juróomi waxtu yaa ngoog lii boo ko defee la àllak bu boobaa yow tardaa da nga gërëm yàlla dina la may xéewal ba dootoo soxlaati botik ba si keneen yàllaa ngi wax ak Seydina Muhammad waaye ñun lay waxal de yàlla may la lii yow lee ngay gis yàlla may la lii ngay gis lële waa ku doyluwul ana kañ lay toog bay jaamu yàlla àddina gi tóor tóor la tóor tóoru démb moo dàq bu barke démb tóor tóor bu tey moo dàq bu démb tóor tóoru ëllëg moo dàq bu tey tóor tóoru gannaaw ëllëg moo dàq ëllëg kon sa xol nag boo ko defee ci àddina te àddina mooy jigéen mooy xaalis kon foo jëm mënoo leen jeexal li la ci yàlla jox téye ko nga jaamu borom bi ah mu tamu danna bul tàllal bul xëcc bul fudd ay nekk sa gisee kaay yi ñaar ilaa maa jëm ci la nga xam ne matta ana bànneexal nañu bii ci loolu azwaajan ñeneen ñu tollante ko yeneen société yeneen yeneen kër yeneen jëkkër ak jabar minum ca ñoom lii dey xamal ne zaharatul hayaati dunia hmm? waaw tóor tóor dund àddina dong la li nafti na moom ngir ñu lëjal leen fii ca loola le wa risqu rabbika sa wërsëgu boroom di yàlla xayrun moo gën a tedd wa abqaa te mooy des ba faw waa amur na nga digal ahlaka sa njaboot bi salaati ci julli <clears throat> na nga digal sa njaboot di julli julli du wàcc kenn boo demee bay sukuraat ba yëgatoo ci la julli di wàcc wa awsaani bi salaati wa lu mu ca teg maa dumtu xayyan daama daama ya duumu fii yaa ngi dese kolentaan ci nokki julli wàccu la de nitu yàlla yépp dañ doon julli loolu moo leen tabaxloo ay juma ay jàkka waaye am naa fu ma toll dootuma julli déedéet ko nit ñee koy wax rek na ngeen bàyyi kàddu yooyu la hmm? yonent yàlla muhammad dafa doon fekk doomam te mooy eh, zahra faatumatu zahra fekk mu ne muy nelaw mu daal di jël ndox daal di ko ko këpp ne buurika li ummati fii bukuriha xéewal gi ci sama askan yépp mu ngi ci seen xëy jógal julli bu ëllëgee danaa génn bàmmeel jibril nekk sama ndeyjoor mikaayil nekk sama càmmoñ ma jëm alkawsara di naan sama doom di faatimatu ne éey sama baay maa ngi di man faatimatu mar na sama bàjjante mooy safiyatu dana daw ne éey sama jarbaat wala éey sama doomi càmmeñ man day mar na ma ne kaay leen kii sama bàjjan la kii sama doom la malayka dox suñu diggante ne ba nga jógee àddina xamoon lan lañ jëf sa gannaaw bu fekkee na ñu ngi artu Faatumata bint Rasul ci Muhammad di artu Safiyatu bint Abdul Muttalib ci Muhammad ana kan kon moom lay moom lañ dul artu ëllëg ah? kon nañu dellu ci yàlla nañ jaamu borom bi subhaanahu wa ah? waa amur na nga digal ahlaka sa bisa bi salaati ci julli wastabir na nga muñ te sax dàkk ca muñ nga aliha na nga muñ muñantu tey muñ le tey muñantoo laa nasaluka ñun laajuñ la risqan benn wërsëg nax na ñun day nasuuka ñun ñoo lay wal aaxiratu mujj waaye mbiri li taqwa ñel na waay ragal yàlla yi wa qaalu ñu ngay naan alifun thumma